jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw nuyoo bi ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel ci yaru màgg ñu bàyyi ko mu weeru koor di leen balu di leen ko baal tey ñaan suñu borom boole ñu jéggal nangul ñu mboolem suñuy jëf yu baax jéggal ñu mboolem suñu rëcc rëcc yàggal fi suñu kilifa ku tedd gi Cheikh Mouhamadou Mountakha may ko wér ak kattan ba fi mu bëgg a yeggalee liggéey bi mu yàggal ko fa te ñu ànd koog moom di ñaanal mboolem kilifay yoon wi ak kilifay réew mi di di ndokkeel itam ci xew-xew bu mag boo xam ne xewoon na ci dunduk sëriñ bi ak ci yoonam bi muy jox gi ko sunu boroom jox wird wow boppam wu mu jagoo ñu koy wax al wirdul maxuusu minallaahi biwasitati rasulihi alaihi salatu wassalam yaqazatul la manaman muy wirdu wu ci yalla jaare ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu jot ci jahran ci luddul ay nalaw yonenti bi jox ko ko ci luddul ay nalaw muy muy mebet ak bëgg-bëgg bu kawé bu mu bëggoon don ko sentu di sakku ba sun borom may ko ko ci weeru koor ci atum junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn ci barab bu ñuy wax Sarsara ci Mauritanie ci la njëkk a jote euh, wérd wi nga xam ne mooy euh, mooy euh, kii bu njëkk bi xaaj bu njëkk bi maanaam joxin wu njëkk bi ñu koy wax alxafiif ba demee ba ca Chaban maanaam baraxlu wa ca topp ba koor gee waaju delsiwaat kon ci la jotaat weneen wird weneen weneen weneen wird wi mooy weneen joxin wi muy ñu koy tuddee alkaamil muy ñaari wird yi nga xam ne kon mooy ñaari jàngin yi ñu jàng wird wi te yëpp doon benn loolu kon xew-xew boobu kon mi ngi amoon ci weeru koor ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor waaye mi ngi ko mi ngi ko génn nag joxe ko ci juróomi fan ci weeru shawwal muy korite boo loolu di xew-xew bu màgg màgg ci eh, diine di xew-xew bu màgg ci dunduk sëriñ bi ak jaar-jaaram loolu itam ñu ci ndokkeel mboolem jullit yépp nag rawatina taalibe yi wird bi nag eh, nekk lu am solo ndax wird woo xam ne eh, nituk yàlla da cee jot mu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko ko loolu la ñuy tuddee tariqa ci tasawuf ci li gën a siiw ci ñoom bu joxee tariqa ñaare e, loolu la loolu lañ jublu mooy wérdi rek wérdi boo xam ne day ànd ak i sart yoo xam ne ku ca tënku mm, di ko jëfe mu yóbbu la ci yàlla fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التجاني أو لسواهما من الأقصاب إذ كلهم قطعا على الصواب سرين بنانا wirdu mën a doon ci wirdi tarixa yi eh, ku ku ci ku ci ku ko jàpp ku ko jël te sàmmonteeg ay dan la yóbbu ba nga àgg ci yàlla moo xam wirdu Cheikh la wala Cheikh Abdul Ahmad Tijaani wala Cheikh Abul Hasan Shazili wala wirdu keneen ku dul ñoom ridwanullahi taala alayhim kum ci man doon rek boo jëlee wirdam tënku ca dana la yóbbu ci yàlla kon wird yéegukaay la bu ñuy yéegi jëm ci yàlla sëriñ bi nag ci njëlbeenam daf doon jël wirdi tarixa yi fekkoon tarixa qadiriya ak tijaaniya ak chadiriya bu ci ne jël na wirdu wa jëfandikoo ko ab diir joxe na jox na ko ay nit itam ba mu demee ba am nag ba nga xamee ne nag suñu boroom jox na ko nag wirdu boppam mooy wirdu yi nga xam ne mu ngi ci jot ci taarix boobu ñu wax muy nag lu am solokon kon wirdu wi nag ni ko waxee dafa am ñaari ñaari jàngin ñaari toftale ñaari toftale yoo xam ne yëpp wenn wirdu wi la euh, ginnaaw ba it mu am euh, beneen xaaj boo xam ne moom ab tëj la tëj li ñu tuddee xaatam mooy loo xam mooy tëj wirdu loolu kon buñ ko boolee lépp moo tudd wérdul maxuus wérdu wi ami sart yoo xam ne bokk yi leeral nañ ko leeralati ko am nuñ ko war a jëlee ak nuñ ko war a jëfandikoo bu ko defee nag mu nekk lu am njariñ wérdu bu bari njariñ nag waaw ndax wérdu ci boppam rek dafa am solo ndax wérdu mooy aw yoon wala yéegukaay raas wala yéegukaay raas boo xam ne nit ki da ciy jaar di yéeg di yéeg di yéeg ba ba muy àgg ci boromam lu mu gën a yéeg di gën a jege borom ba ba muy àgg ci moom mu mel ni ab rootukaay boo xam ne nit ki da ciy root ak leer di ko sotti ci xolam ba ba muy dem ba xol ba fees dal ak leer mu xam boroomam moo tax ñu ko tuddee wird wird mooy firi root rek root lay firi ci ci ci waxu arab wird mooy root ndax kii wér di day mel ni kuy root ak leer di ko sotti ci xolam bu ko defee nag kon loolu nekk na lu am solo ndax day dundal ruux di defar bakkan di tënk nit ki ci njub kon wird yëpp am njariñ waaye wird yi wird wu nekk nag am na jagle boppam gu ko gu mu am wirdu sëriñ bi nag dafa ami jagle ak i njariñ yoo xam ne yu mu jagoo la bu ñu delloo ci boroom dalilu man rama dalil euh, nga xam ne day wax ci mbirum wérdu wi euh, moom wax na ne wérdu wi am nay njariñ yoo xam ne tudd na ca ne ku koy jëfandikoo da ngay am kaaraange da ngay am jàmm am kaaraange am sutura sunu borom loolu tey leer na ci biir wérdu bi ndax boo boo jàng wérdu yi xeeti ñaan yi nga xam ne yëpp ñaani kaaraange la ak ñaani muslaay da cee fes ay uh, muslu ci seytaane jàng a a'uuzu bi kalimatillahi taammaati min sharri ma xalaq xasbunallahu wa ni'mal wakiil wa fawza ambiya ila allah xasbiyallahu uh, ak yu bare bare yu demel fatiha ak falaqe ak naase ak yooyu di ay xeeti muslaay mi ci biir yoo xam ne yu ci nekk am nay xadis ak ay jeexit yoo xam ne day wax ne ku jàng lii suba ngoon danga ci amee lii ak lii ak demee ci irnaul adim bi xabaaya awratul xadim bi Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana radiallahu anhu euh, wax na wird yi li ci nekk ci ay baat yëpp baat bu nekk lañ ca wax ci ay ci ay njëriñ bu jógee ci xadis kon bokk na ci njëriñ wird yi ki koy jëfandikoo ko day am kaaraange yàlla suñu borom da koy aar musal ko ci seytaane ak kuréelam jinneeg rabak yëpp yi nga xam ne ñooy ànd ak seytaane day am kaaraange itam yàlla musal ko ci ay noon pexey noon e, musal ko yitam ci ay ndog ak i jafe-jafe jamono e, kon muy kaaraange gu ma sëkk daal ku koy jàng incha allahu taala suñu borom dana la ko defar da ngay am jàmm itam jàmmi yaram ak jàmmi xol loolu borom dal yu mën ma day wax na ko ci bokk na ci njariñam itam ku koy jàng danga nekk muslim da nga nekk itam muhsin muslim am nyari mana mana maanaa bu njëkk bi mooy da nga nekk jullit da nga nekk jullit boo xam da ngay tënku ci e, diine nekk nit ku jub daal ku jub koo xam ne li yàlla digle farata yi da nga ko jëfe yi xaraam da nga ciy mucc e, loolu mooy jullit mooy ku tënku ci ndigalul sunu boroom loolu ku kuy jëfandikoo di dana da ko am incha allah te loolu leer na ci ndax sart yi nga xam ne moo moo moo moo ànd ak wirdu ay sart la yooyu ku ko ku ku ca tënku faaw nga nekk nit ku jub faaw nga doon julit moom boo xam ne li sam santaan da ciy tënku li muy nga koy bàyyi kon dalay dimbale ci yoon ci nga nekk nit ku jub waaw euh, muslim itam day firi ku ku ku ku ku koo xam ne ak wam matoom ku maanaam ku ak ragal mat ku ragal yàlla dëgg dëgg ragal uh, jébbal boppam xolam jébbal yàlla xolam jébbal ko ak cëram jébbal ko ak dundam qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bi dhalika umirtu ana awwalul muslimin loolu kon mooy maanaam maanaam muslim ba gën a kawe loolu it kii jëfandikoo wér di dana ko ca yàggale bu fee ñaar yooyu yëpp nag ku ca àgg am na xeeti daraja ak i eh, may yu kawe yoo xam ne sun borom dalil na la ko borom dalil maanaam dalil mi ngi wax kon ne ginnaaw ki ki jëfandikoo day nekk muslim kon na jàpp ne la ñuy ca ci innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal qaanitina wal qaanitaati ba ci wa zaakirina wa zaakirati dana am loola te mooy aadallahu lahum magfiratan wa azima maanaam kii jëfandikoo wirdi bi Eh, yalla da de mi ngi koy mi ngi koy xarol mi ngi koy wutal mi ngi koy fagul ak yeggal ak yol bu reey reey reey yo sax serigne bi mi ngi koy eh, wax di ko di wax wahab bi man akhadha wirdi ya karim musta'binan bihi sawaban la yarim el sun borom ma ngi lay ñaan kep ko xam jël na sama wirdi wi di ko yalla nako may yol bu reey reey bu dul jeex mukk waaw ah, kon loolu bokk ci li nga xam ne ku nekk muslim eh, ci maanaam mu njëkk mi rawatina mu ñaareel mi da nga koy am nee na ku ko nekk te mu nga nekk muhsin mooy aj nekk da nekk aji rafetal maanaam ku ku ku sellal diineem sellal ga gën a kawe eh, nga xam ne daal meññetum diine eh, am nga ko mooy xam yàlla yegg ci moom te te te te ko am am yaqin ju mat loolu ko ku jëfandikoo da nga ci àgg te loolu mooy li nga xam ne moom la tas tasawuf di di di ña koy jëfe loolu itam borom dali manaama dali nee na ginnaaw kuy jëfandikoo da ngay nekk moxsin kon jàppal ne ki ko dana dem aljanna ba noppi dana bokk ci ñiy gis jëmmi sunu borom ju tedd ja bu ëllëgee ci aljanna ndax sunu borom may wax ne lilladina ahsanul husna wa ziyaada ñi nga xam ne ñoo rafetal dañuy tàbbi aljanna ba noppi ñu dolli leen ci wan leen jëmmi sunu borom buñ duggee aljanna ba noppi sunu borom nuyu leen ñu gis jëmm jëmmam loolu kon bokk na ci te itam rafetal itam ku ci àgg dangay bokk ci ñi suñu borom di bëgg ndax wallahu yuhibbul muhsinin waye itam rafetal itam ku ca ag da ngay bok ci ñi sun borom di mengo say mbir di la dimbulé fo tollu ndax inna allaha ma'al allazina taqaw wallazina hum muhsinun ak inna allaha la muhsinin kon daal njariñu bare bare bare mi ngi ci jëfandikoo wérdu bi kon képp koo xam ne yàlla mën loo na la ko nga jël ko nang ci ànd ak akuk dogu akuk farlu akuk sellal te xam ne mën na laa yóbbu fu kawe ndax mën mën na laa yóbbu ci ba nga àgg ci sa borom nga xam ko waaye mën na laa fàggul kaaraange ak mucc mën na laa fàggul wërsëg bu yaatu bu te ni te lew euh, mën naa sa fàggul itam sutura ak teraanga kon yooyu yëpp ay njariñ la yoo xam ne làmboon a wér gi kon ñu ci ciy soññ suñu bopp di ci soññ bokk mboolem jullit yi nga xam ne mën nañ koo jëfandikoo باقي كون لو مكادين دون باركي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل اجمعا اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم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 يا رب يجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشملج معاه نيوغي نيو مبوكي يب مبوكي جلدي مبوكي طالبي دي نوكيل نييب سورتو الطريق المريديه غا خامني كي نيك سي بوبي سونو سيرين شيخ محمود المنتقى ابن الشيخ محمود البشير ابن الشيخ احمد بن بخادم الرسول حفظه الله تعالى ورعاه wa nasarahu wa tawalla ak mboolem xulafaa i cheikh al xadim yi nekk ci yoonu murit gépp njabootam boppam gi ak njabootu ruuxam gi ñëpp ñooñu la ñuy waxtaane tey ndax ñi ngi waxtaane loo xam ne ñoom ñooñu ñoo ko sembule muy wirdul maaquus wirdu yoonu murit wirdu cheikhul xadim kon di ndokkeelaat cheikhul xadim ci mayeem yu kawe yooyu ko yàlla may ca wérdu wi bokk ci may ca wérdu wi bokk ci ca yàlla dogal nag ñu di ko fàttali ko ci fan yi ndax xam ngeen ne wérdul maaquus sëriñ bi mi ngi ko jote woon ci weeru koor ci mujj koor gi ci fukki fan yu mujj yi ca ba ko yàlla yóbboo muy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa ca bu dee ci zahir si mu nuru ne tubaab yi ñoo ko fa yóbbu woon exilé ko fa diggante 1903 ba 1907 waaye ndekete woo yàlla xéewal yu mag a mag la ko nar a defal daxañ ko ci loolu ndax ci kaw gi de tubaab yi ñoo ko fa yóbbu woon biñ jaaxle ci moom lool yóbbu nañ ko Gabon mu yàgg fa lool am fa samaani yax ji daa xëy lan juróom-ñetti at yu manqué ci lu ne mu jaar ci ba mu ñëwee ab diggante la fi am lu gàtt 1902 la ñëw 1903 ñu daat koy jëmee gànnaar ne ko toogagoo day mel na ñoom kon rek noppeeguñ woon ci moom ci xam ngeen ne ba mu fa jógee yëf yi daa continuer nattu bi ba ni wuy jee boromam waaye ndëkkate wootee yàlla bu day maye may yoo xam ne léeg-léegi ci kaw gi da da day day jël ab natt bu diis teg ko ci kaw loolu la wax an ni'ma fi tayyi niqma xéewal gu la yàlla nar a jox loo xam ne léeg-léegi ci kaw gi ci jafe-jafe nga koy jëlee ma joxe ci rek misaal nit ku war a mën a am xéewal gu mag a mag gum nar a am kum doon wër ku ko jafe lool ci moom ko xam ne bu ko gisee moom wër na ko ne rek macha allah daal dana sant yàlla lool yàlla natt ko bis mu taar de oto yi ko war a yóbbu yépp jotu ci dugg ci yi ko war a yóbbaale ab lu yeex yóbbaale ko sareet wala dara lu yéemu waaye bi muy dox nag bi muy dem ci yoonu dajeeg kam soxla woon nga xam ne yoonu bu nuroo jafe-jafe lu xawoon metti ci mom bi muy dem way am lu ci yalla la tegon ndax ndekete wo fi yoon wu yeex jaar motax mu gis way lolu moy doxenu serigne bi surtout nak ci gannar motax serigne bi waxal ñu bopam ne bi mu nekkee ne ku japp ne sama tukib gannar gi mok bu gabang bi ñoo koku nité nitewut ndax sama tukib gannar bi yalla dama fa yóbbu ngir fay ma rafet nañ njort bu baaxa baax nak ne xamne fay yoy ko yalla fayé wér ma wi dara jitu ko ci xam ngeen ne bi dafa tankoon ci wérdu yu bari la daan jëfandikoo wérdu yëpp jëfandikoo na ko machaayix yi sayiduna al jaylaani wa chadili yi ahmad tijaani wala beneen riwaaya maahu tijaani wérdu qaadiriya yi nga xam ne moo nekkoon cosaan fii nga xam ne moom la suñ mag ñi daan jëfandikoo bu njëkk bi yoonu murit sosoogut wérdu chadiliya nga xam ne lu tasaaroo woon la Cheikh Abul Hasan ba ko yàlla yóbboo muy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca bu dee ci zahir si mu nuru ne tubaab yi ñoo ko fa yóbbu woon exilé ko fa diggante 1903 ba 1907 waaye ndekete woo yàlla xéewal yu mag a mag la ko nar a defal daxañ ko ci loolu ndax ci kaw gi de tubaab yi ñoo ko fa yóbbu woon biñ jaaxle ci moom lool yóbbu nañ ko Gabon mu yàgg fa lool am fa samaani yax ji daa xëy lan juróom-ñetti at yu manqué ci lu ne mu jaar ci bam ñëwee ab diggante la fi am lu gàtt 1902 la ñëw 1903 ñu daal koy jëmee gànnaar ne ko toogagoo day mel na ñoom kon rek noppeeguñu woon ci moom ca xam ngeen ne ba mu fa jógee yëf yi daa continuer nattu bi ba ni jee boromam waaye ndekkete wootee yàlla bu day mayee may yoo xam ne léeg-léegi ci kaw gi da da day day jël ab natt bu diis teg ko ci kaw loolu la wax an ni'ma fi tayyi niqma xéewal gu la yàlla nar a jox loo xam ne léeg-léegi ci kaw gi ci jafe-jafe nga koy jëlee ma joxe ci rek misaal nit ku war a mën a am xéewal gu mag a mag gum nar a am kum doon wër ku ko jafe lool ci moom koo xam ne bu ko gisee moom wër na ko ne rek macha allah daal dana sant yàlla lool yàlla natt ko bis mu tardé oto yi ko war a yóbbu yépp jote ci dugg ci yi ko war a yóbbaale lu yu balé ko sareet wala dara lu yému way bi mi dox nak bi mi dem ci yoonu dajé kam soxla won nga xane yoonu bu nuro jafé jafé lu xawoon metti ci mom bi mi dem way am lu ci yalla la tégon tegoon ndax ndekete wo fi yoon wu yeex yu mu nar jaar motax mu nara gis lé way lolu moy doxénu sëriñ bi surtout nak ci gannar motax sëriñ bi waxal ñu bopam né bi mu nekkee gànnaar ku japp né sama tukib gannar gi mok bu gabon bi ñoo koku nité nitewut ndax sama tukib gannar bi yalla dama fa yóbbu ngir fayma rafet nañ njort bu baax a baax nag ne xam ne fay yooyu ko yàlla faye wérdu maaxuus wi dara jiitu ko ci xam ngeen ne sëñ bi dafa tënku woon ci wérdu yu bari la daan jëfandikoo wérdu yëpp jëfandikoo na ko machaayix yi sayiduna al jaylaani wa chadili ji ahmad tijaani wala beneen riwaaya maahu tijaani wérdu qaadiriya yi nga xam ne moo nekkoon cosaan fii nga xam ne moom la suñ mag ñi daan jëfandikoo bu njëkk bi yoonu murit sosoogut wérdu chadiliya nga xam ne lu tasaaroo woon la cheikh abul xasan achadili wirdu Tijaani Cheikh Abul Abbas Ahmad Tijaani nga xam ne moom tam lu fi tasaaroo woon la bu ci nekk sëriñ bi jëfandikoo na ko am na ci ijaasa mbàkke bi ma doon tudd léegi boo demoon Daarul Moxti boo demee danga fa fekk wird yi ma doon tudd yëpp bu ci nekk ñu ko fay jëfandikoo ca ku ci nekk nag am nga ci cosaan lool ca ndigal la loo xam ne jógewoon na ci sëñ Tuubaa waaye nag bi nga xam ne sëñ bi nee na yàlla du ko yóbbu gànnaar ngir fay ko fay yooyu ku ne xam na ne wérdu yu bokk na ci moo tax ba sëñ bi demee gànnaar rek ca koor gu njëkk ga ci la ko yàlla joxe wérdul maaxuus yi nga xam ne moom lañu jëfandikoo muy wérdu yoonu murit wérdu maaxuus nag buñ ko waxee wérdu yoon tim waaye rek mooy wérdu Cheikhul Khadim ak noo ko mën a tuddee wérdul maaxuus xisbul rafia xisbul xaatim noo ko tuddee rek waaye mooy wérdu Sëriñ Tuubaa al wérdul Xadim yi loolu la ñuy fàttaliku ndax wérdu wu ci ràññiku muy wërd wi nga xamante ni wërdul xafiif yi nga xam ne sëñ bi moom la ko joxe woon ca gànnaar eh, ki ñi nga xam ne ñoom la ko njëkkoon a jox waxal nañ ñu ne ñoom sëñ bi ba mu àggee ca koor ga ci la ko njëkk a tàmbalee joxe muy fan yi ñu nekk tey moom ngeen koy fàttaliku muy juróomi fan ci weeru shawaal ñoo ngi ndokkeel ñëpp waaye nag du ndokkeel alxadimiya am nañ ay taxawaay yu mag yu am solo li ci ëpp solo ci seeni taxawaay day mel ne ñoom dañoo jóg xool sëñ bi ñu ne ko dann lekk li mag ñi di wax mooy li yëfi sëñ bi dëgg-dëgg moom lañu jiital ci lépp wérdu wii day alhamdulilah tasaaroo na lool te ku ne xam na ne may la gu kawee yàlla may Cheikhul Khadim ceñ war koo jariñoo ñun bu baax a baax nag waaye ñoom am nañ ci liggéey bu taxawaay yu rafet rafet rafet rafet rafet lii de jàpp naa ne ñoo ko njëkk a tàmbali te def nañ ci yeneen jéego yu baree baree ngir tasaare ko kon nag yàlla neen yàlla fay ñoom ñooñu waaye nag jaadu na comme sit seen organe bi ñu ngi ko tuddee alxadimiya moo tax li ñuy wax rek ci xadim lañu wa xaadim la ñu war a tàmbalee rek yem ci alhamdulilah nag seen taxawaay wane na ko lool lool lool surtout ci wirdu Màkhuz wi moom wax naa ne bala mu ko ci tàmbale waxtaan ñi ngi rendre hommage ki nga xam ne moo ko jiite wirdul Màkhuz cheikhul xadim radiallahu taala anhu moom mi nga xam ne ak may la gu ko yàlla may ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal waadu lii fi ramadana na jaza bari na borom xam-xam yu ne seigne touba bokku na ci lim ci junjaale wérdu wi moy yalla bi mi lim ci wakan xaqan wakaan xaqan gànnaar la ko touba talif don ta sax ginaaw sar sar la yalla may na ko tiyaba ju bari may yu bare bari ak ko fay te lam ko digon jox na ko ci weeru koor ku ne xam na wi ci koor la ko la ko joxe seigne touba lim ne it lam yakku sayru aksasin siwa jaza man li ba ba'du wa'd an najasa dem gima dem ganar, du dara lu rek yalla fay ma ku ne xam na ne fay yooyu wérdu maaxuus yi ci la bokk liy tegtale loolu sëñ bi lenn ci xasidaam yi nga xam ne defe naa mi ngi ko tënkee lan la na laa laa yaj'alu ajral mu'minin nee uktub li man wirdi yaa karim mustaamilan bihi sawaban laa yarim yow yàlla yàlla na nga bindal yàlla na nga fay kuy jëfandikoo sama wirdi wi tiyaaba fay gu bare. bare day mel ne bi ak fay la tudd foofu looloo waral ñu ne sëñ bi fi mu ak fay yëpp ci di yooyu mo don tuddu man nga ko tekke werdu wi kon werdu wi lu bok na ci li yalla fayé Serigne Touba werdu wi ndariñu kessela la fofu rek lañ ko bëgg a sax ci ndariñu werdu wi waye ndariñu werdu wi ci gattal ma res na ne ñu werdu lepp ndariñ la ndariñ lu nëbbu nga xam mo upp solo fop lo xam day jariñ nit ki digënté mak boromam diko ko ci yalla diko ko ay lèr diko ko pas-pas yok ko yokk ci Serigne Touba ndariñ yoy la fess del loolu nag bu jàllee njariñul saahir li ni moom waxi nopp sañ xam ne nag sëñ Touba saahir kese àdduna tox ko woon a jóg moo tax loo gis ci moom ci saahir rek xamal ne lu wala ngaan la ba agsi rek waaye dëgg dëgg li ko taxoon a jóg nag moom mooy defar nit ki àggale ko ci yàlla lool nag xam ngeen ne wuute naag nattukaay yi ñu def léegi ñun saahir yàlla tànnal wird woowu Cheikhul Khadim jaar la ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tànnal ko béréb bu tedd muy gànnaar googu nga xam ne sëñ Touba gis nga li mu ci wax bañ na ko ba ardu saalihin la ko tudde tànnal ko weeru koor jamono ju tedd nga xam ne moo gën ci weer yëpp weeru yàlla subhanahu wa taala nga xam ne yàlla nee na doomu aadama jëfam jëpp da ko ñeel bu dee weeru koor maa ko moom maa koy fayal sama bopp weeru koor ci lañ ko ko jox tànnalaat ko fan yi nga xam ne dañ ne moo gën ci weeru koor nga xam ne dañ layatul xadri sax ci lañ ñu koy wërloo di ñu ko xooloo muy fukki fan yi mujj yi kon loolu kon wérdu wi lépp tànneef la yàlla da ko tànnal cheikhul xadim tànnal ko jamono ji mu joxe tànnal ko fépp ba ci suuf nga xam ne sëñ Touba sax ardu saalihin tudd gi mu ko tudd ardu saalihin sax sekkare bi mën na cee bokk na fa sëñ Touba nekkoon ak jot gam fa jot wérdu wi te foofu booba it booba nag bàyyi leen xel ne ay jullit kese ñoo fa nekkoon nit ñu baax ay wàlliyu tànnal ko ko jamono ju tedd muy weeru koor fan yu tedd muy fukki fan yu mujj yi jawrinam ju mag jooju nga xam ne mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo jox ko ko muy bokk na ci njariñil wérdu wi boo ko dee jëfandikoo niñ ko war a jëfandikoo xamal ne wird la wu gàtt gàtt gàtt boo xam ne kii dox sa digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sëñ Tuba yow mi ko jox sa taalibe bi ak kala ko jox loolu rek mu yaa dox digganteem ak yonent bi loolu sëñ Tuba daana ko wax ba tàyyi da nga da nga daa nañ jégg ba ñu nekk gànnaar ne sëñ Tuba daana wax taalibe bi yéen lan yatuula sanadukum seen sanad de yéen du gudd mukk ci àdduna maa dox seen diggante ak Cheikhul Khadim loolu taxoon na ba sanad bu gàtt boobu ak may yu bari yi nekk ci wird yi taxoon na ba ca gànnaar ñu baree baree bari ñenn ñoo xam ne ay kilifay tarixa lañ xam naa ci koo xam ne ci tarixal xaadir yi la bokkoon xam naa koo xam ne sax du góor jigéen la soxna su tedd doomu Cheikh Abdul Xaadir al Kumli jigéen laax de nekkoon kàngam ci tarixa Chaadiliya ak ñeneen ak ñeneen damay joxe ñaar misaal ci ñaar ñooñu ku ci nekk demoon nga ci sëñ Touba ne ko bi mu yégee ne sëñ bi jot na jot na wird fekki nga ko ne ko damay sàkku ci yow ijaasa nga jox ma wirdu maaxuus wi ci ijaasaal ma ci lu yéemu daan ci am ñoom ñaar ñoo ñëpp bu dee kenn ki ki bokkoon ci alxasan yi ne mooy euh, cheikh ahmad cheikh euh, aboubacar ibnu fatan chaqrawi euh, da bu ko nit mosa laaj wér de ah, dala daan wax ne ban wér di nga bëgg sanat bu gudd bi wala bu gàtt boo ne ko sanat bu gudd bi mu ne laa boobu nag mooy wérdul xaadir yi ma yoroon jële woon ko ci samay waajur xam nga yàgg na balaa àgg Cheikh Abdul Xaadir Jilaani balaa àgg sax ci yonent bi boo ne bu gàtt bi moom loolu nag wuldu Abu Bakar ibnu Fatan moom moo daan wax loolu Cheikh Ahmad ibnu Fatan ibnu Abu Bakar ibnu Fatan Chaqrawi loolu kiimaan la kenn ci doomu Cheikh Abdul Xaadir yi soxna Xadija yaakaar naa jëli woon na wérdu yi tam tariqa chageli la yoroon jëli ko ci bi mu yëgee wérdu yi ba tey demoon na sàkku ci Cheikhul Khadim ak ñu bare bare ci njabootam ko ñu wax lu yéemu loolu ne man dañ yor naa ñaari ijaasa bu ngeen ci bëgg rek yor naa bu gudd yor naa bu gàtt bu gàtt bi di Cheikhul Khadim mooma ci ijaasal loolu nag ñun buñ ko xamee noonu loolu jar na dem di ko jëfe di ko fonk liñ wax ci njariñi njariñul kese la man nga waat ci yàlla ne mooy loo xamante ni boo ko dee jëfandikoo dana àgg da àgg maanaam yàlla dana dana ko nangu lu baree bari li ko waral Serigne Touba ñaan na ko digg ci lu baree bari doy na sëkk nee na ku koy def jullit piir ngay doon ngeen bàyyi xel ne wirdu wi lim làmboo istixfaar rek la salaatu ala nabi ak tudd yàlla waxuma la istixfaar waxuma la tudd yàlla waaye salaatu ala nabi gi ci nekk salaatu ala nabi ñëpp dëppoo nañ ci ne riyaa ngistal sax du ci dugg boo ko doon def ngir jàppee ko ngistal sax yàlla dana ko nangu mooy jëf ji nangu kon werdu yi dana àgg dana nangu ku ko defee da nga am waaye ñu xam leen nit nañ koy leeral yàlla nangu jëf dafa wuuteeg nattukaay yi ñu koy natte ñun tegtale wut ne werdu wii boo koy def mu wóor le ne àgg na da ngaa war a doon koo xam ne ku la xool dana feeñ lool ci yow danga jekk lool li nga sol dana rafet lool sa poche bi dana diis lool danga def nangam da nga def nangam nattukaay àdduna yooyu il ñu. xol ci bu baax a baax xam ne taxutoon a jóg sëñ bi bari na ñum defaroon kiimaan lañ ñoo feesoon dell am lu nekk seen diggante ak seen borom waaye boo leen bëggoon andi ci nattukaayu àdduna yi da dana wute lool moo tax nag nañu nañu xool nañu jël nattukaay yu baax yi di ci natt te xam ne sëñ Tuubaa nag nag koomum àdduna puukare lool amu ci soxla aqbalati dunya ilayya qablu wa bi'tuha fa zaala anni kablu sëñ Touba lu àdduna am ci moom rek xamal na lu bari la bay ruus waaye dëgg dëgg tax ko woon a jóg misaal yi bari na ci xoolal mag ñi mu yaroon sëñ Daam Abdourahman Lo ku ko gën a jege Cheikhul Khadim yoroon na ñaari njabootam sëñ bi daan ko dénk li mu gën a fonk muy alxuraan di ko yarloo ak njabootam di ko yarloo mbokki taalibe yi sëñ ndaam de ku ne xam na ne àdduna sori woon na ko loolu loo ciy jàngate mooy sëñ daam cër bi ko yàlla jox kawe na lool te kuy jege sëñ Tuubaa moo la gën a jege sëñ Mbàkke bu sëñ ko noonu li ma wax sëñ daam mën naa ko wax ci moom sa maam ji ñu doon tudd léegi sëñ Mahmoud Mbegere noonu ak ñu bare bare ci mag ñi mu nekkaloon sëñ ma bànd saw ku ci nekk rek cosaan nga ci wirdu wi kon ñu xam ne am ngërëmul wi am ngërëm li ak am leerug wirdu wi nañ koy teg ci nattukaay yu baax yi waaye wuute naag nag nattukaay àdduna si rek tegtalawut ci ne da ngay yor mbooloo mu lay defal nangam ñu lay jariñ tegtalawut ci ne da ngay yor xaalis bu bëree bëri tegtalawut ci ne leen ndax nag xam ngeen ne wala laaxiratu na laka minal uulaa benn bisu alaaxira di xam ngeen ne moo gën a for alaaxira moo gën a yàgg bàyyi leen xel nit ki lu mu am ci àdduna lu mu rëy rëyit boo ko xasee gas suul ci dara kon nag kuy sonn ca li jëm ci ëllëg moo taxoon sëñ bi di sonn boo ko dencee ñi faatu woon su mag ñu baax ñi mu doon tuddal anañu kañ nga leen gëj a gis bañ faatoo nga leen gëj a dégg ñoom ñëpp nga gëj a xam ci ñoom dara koo ci gis ko ne ma nga fam nekk nit bis pencam waxuma la loolu bis penc nga xam ne moo gën a yàgg indi yow man ànda rek ka alf santin maa tuwaadun waaye tëraayu bàmmeel ak ni mu yàggee def nga xam ngeen ne kon loolu mooy li am solo ci àdduna it bàyyil xel ne lu fu nit am ku gëmut yàlla ëpp leen ak ko fuuf ku gëm yàlla sax léeg-léeg di julit waaye da lay wóor ne sàggan na lool wuute na ak yow caaxaan kat la fokkat la ci du ko nëbb du ko nëbb da koy fësal da ngay xam ne moo la ëppale lépp moo tax nag nattukaay yooyu ñu xam muy xeeti ci sëñ aju ci sëñ bi jariñu ci sëñ bi moo xam ci wi la wala ci sëñ bi nu mu mën a doon nañ koy jël di ko teg ci nattukaay yu baax yi mooy nag kooku ki la gën a ak lu baax la sëñ tuba am ak jub la sëñ am ngërëmul yàlla la sëñ tuba am moom la doon kon natukai yo lañ koy nat diw mi jariñu na ci sëñ bi nangam na ci sëñ bi xoolal nu def ci loolu ci diineem ju kawe ci jikkoom yu kawe ci pas-pasam bu kawe loolu mooy nattukaay yu baax yi ñoo ngi rendaraat hommage ci wérdu Maaxuus wi Cheikhul Khadim ñoo ngi rendar hommage mag ñi ko waroon ñoom ñëpp danañu wax ne bi ko sëñ bi jotee ñëpp la ko joxoon ci ñi ko jege woon ñu ci bari xamoon ngeen Cheikh Ahmad Ibnul Hasan xam ngeen Cheikh Moustapha ibnu Ousmane alxalabi moomu sëñ Mad Lamin Jóob Dagana tudd xëy na mën naa am siiri la dëkkoon waaye day mel ne Madinal Munawwara la nekkoon kon day mel ne tasaare woon na ci àdduna magam ju baax ji fi nekkoon Maam Mor Jaara borom Saam sëñ Mad Lamin Jóob Gay Firdawsi borom kër gi ngeen nekk bokk na ci ñi ko njëkk jox ñi ko njëkk jox Wirdul Maxuus ginnaaw ginnaaw bi mu ko jàngalee lu bari ci xam-xam ak mag ñëpp maam Cerno Ibrahima Faati ñëpp njabootam gi doog a ñëw ñëpp taalibe mi noonu surtout nag mu gànnaar kon ñooñu lañ ci rendre hommage bu baax a baax di ci rendre hommage suñu xalifa général de Mouride bii nga xam ne ak sukkandikoo na ko ci li jiitu woon ci la fa mag ñi bàyyi woon soññee na ci lool ba gis ngeen rek lim ci defoon nen nañ ñëpp góorgóorlu dem jëli ko def na ci soññee yu mag a mat a mag waaye nag ñu ngi ciy rendre hommage nag alxadimiya dëgg dëgg am nañ ci taxawaay yu rafet. yàlla na leen ko yàlla fay ci sikk sàkkaw ñu yàlla dana leen ko fay li ñu wax ci wér lañ jox jëf la jëf la neen wér wi njariñul kese la wóor ñuy jëf ji àgg la boo amee seetlu del xool nag tal neexut deret nga naan sëñ Touba mi toog ci man wala sëñ Seer wala sëñ Mbàkke mi ngi koy def nii la mel nangam di personnaliser nit nii la mel jëru ko ñëpp la ku ko jariñoo ku koy jëfandikoo niñ ko war a jëfandikoo rek mi ngi lay jariñ ñaari façon jëfandikoo na ci nga jëfandikoo ko ci sart jëlee ko ci fu ko war a jëlee ko ci sart yi di def li mu lay digal di bàyyi li lay tere lépp sikk sàkkawu ma ne ni ma gëmee ne àjjana am na bis penc am na ni laa sikk sàkkawu ne kooku ma ngay jariñu bu wér a wér samp jariñu bu wér a wér nga gis ko wala nga ñàkk ko gis ngir sa bët gu a suufee ba du xàmmee sax luy njariñ wala nga jëfandikoo ko neneen nga bëgg ko noonu rek jël ko xëy na sart yi mën naa bañu mat kooku teewut ma ngay jariñu njariñ li mën naa mën ndax tudd yàlla ko def yàlla dana la fay julli ci yonte bi ko def yàlla waaye wérdu yi bokk na ci njariñam charte yi loo xam ne dalay julliloo dalay jàngaloo alxuraan bi su set dalay julliloo julli mbooloo dalay bëggloo nit ñu baax ñi dalay soriloo bakkaar yu mag yi wala yaasu billahi taala dalay naafilaloo kooku sëñ bi dalay def jullit moo tax li sëñ Tuubaa ne ku koy def da ngay nekk mu'min muslim muhsin leer na lool dafa naa ne lu gën a kawe nit ki nekk mu'min muslim muhsin loolu nga xam ne moo nekkoon xadis jibril bi muy laaj bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadis bu gudd boobu istala alayna rajulun shadidu siyaabi shadidu sawaadi shaar ba mu jeex ba mu ba ko bi laaj lan mooy liimaan mu leeral ko ko na nga gëm yàlla jaamu yàlla lan mooy lislaam wax ko ko na ngay julli na ngay woor na ngay net asaka lan mooy ixsaan ngay jaamu yàlla mel ne yaa ngi koy gis ñett yooyu lu ñu sëñ bi ne mooy lii am ci wérdu wi kon tiyaabay kese la bi mu doog a jot wérdu wi daana wax njaboot ga fa nekkoon ne leen dee leen ko ko ak seen ñett seen loxo bu dëgër a dëgër dëgër addu alayha bi nawaajis daanaka rek lañ doon ñëpp leen ko seen dëgg ji bu leen ko sàggane leer la ku yor ganeen wér ganeen wér di it na nga ko booleeg moom nag boo demee ba mën a ñàkk bàyyi nag ci yàlla dogal nga di sama taal bi nga yem ci ku koy jëfandikoo du nekk mukk ku texee di wala yaasu billahi taala xam ngeen ne texee di nit ki wax naa leen léegi leen lu tax muy sonn mooy alaxira ku yandu sa bàmmeel benn bëccëg da nga xam ne àdduna amul solo yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها ما سقى الكافر منها juraata ma adduna de bu fekkoon ne tolloo naag yàlla ci lu tolloog we benn le weew aw yoo wala wala laafum yoo du ci jox bi yëfar dara ci xam nga ne yëfar yi ñoo ñu ëppale adduna fopp boo yàggee tukki dem ci adduna si da nga xam ne de ñoom bari la nañ ci lu bari waaye nag loolu da nga ci xamee rek ne yàlla amul soxla ci àdduna kon njariñ yi bokk na ci li ñu sëriñ boo xal boppam ñaan gim ci ñaan ku koy def yàlla nga ko may ti xéewal ju bare bari bokk na ci njariñ yi li ñu sëriñ Tuubaa wax ci leen ci mbindam yi ne képp ku koy jëfandikoo taalibe bu koy jëfandikoo danga am lu ñu lay ñee ca ñee kenn xam ngeen loolu de am na solo doy na sëkkit mu ne ku koy def da nga nekk mu'min muslim muhsin wax nañ ñooy ba tàyyi boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy ulama al wërdi yi ku koy jëfandikoo ku texee lay doon du nekk mukk ku texee di gis ngeen Cheikh Ahmad ibnul Hasan mi nga xam ne wax naa ne ñu ne moom la njëkk sëñ bi njëkk jox wërdu wi ngir bëgg soññ nit ñi ak bëgg nit ñi góorgóorlu ci wërdu wi tax na da ci talif talif bu gudd gudd inshallah allah danañ ko mësa jaglél ab émission talif bu boo demee ba ci biir bi mi wax wërdu yeek sart yeek ngeneel yeek yoy dem na ba ci biir ne tuubaa li amilin bizal wirdil jalil fa innahu yuhza bi nusratil jalil xéewal texe ñeel na kuy jëfandikoo wérdu wi kooku de dana am ndimbalul yàlla yurja suturuha alayhi afiya bil fawzi fi daarayn xayra aafiya wala yazalu musliman wa muhsina muxassina dhann bihi wa fa xassini zann bihi wa axsina muslim lay doon mu'min muhsin xam ngeen loolu dara gënu ko nañ koy jëfandikoo ci charte yi dañ ne mag ñi tuxal nañ ci mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak sëriñ bi ñu ne ñu Cheikhul Khadim wax na ba tàyyi ne ku jëfandikoo wérdu wi ak sart yi niñ ko war a jëfandikoo wax naa leen léegi nag nañ koy jëfandikoo nag ci sart yi dana dugg àjjana sëñ bi lu gën a kawee dem àjjana te kenn du ko isaab nee na it eh, yàlla dana ko musal mbugal du ko jege mukk yu bon yi ci àdduna yi ko sori saytaane ak yu mel noonu wal yaasu billahi taala sëñ Tuubaa daanañu wax ne it wér di la woo xam ne bu ngeen demee ci téere yi ñu bind ci Cheikhul Khadim surtout mag ñu ko fekkoon ku mel ne Muhammad ibn Abdullahi al Alawi ne ku koy jëfandikoo de xamal ne jàmbaar yi ndax تغني عن الاوراد ولا يغني عنها ورد موي mooy لا na la sëkk mën nga ca yem surtout yow mi nga xam ne ab taalibe nga waxaat ñu ba tàyyi ne ku fonk sama wird wi du ko jëfandikoo da nga jariñu njariñ lu wér a wér a wér a wér loo xam ne kenn koo gis ca jàpp naa nit ki nag rek la bëgg ngir xemmem la ñu wi loolu ahmad ibnul hasan def cheikh mahamadul bachir def na ko radiallahu taala anu ci waayam yu neex yooyu nga xam ne mi ngi tàmbale ci yàkk yaa al kamali fi saada min turuqil masaix salaasa di leeral wérdi wi njariñ lu mu am num mu boolee leer yi ak sekkale yi wirdi yi nga xam ne jóge ni ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp ca ñëwoon ci nit yàlla yi dem na ba ci biir ne fa jamaal kull fa jamaal kull wa zaada wartaqa bi muxkami tan bi muxkami lkitaabi nima murtaqa fa in axasta wirdahu axasta wirdal jamii laa taxaafu kapta mooy boole na lépp xéewal yëpp def na ko boo ko jëlee kon mal na nga ne rek wirdi yi jaaroon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ci ñëpp rek mal na ne def nga ko kon nañ ko fonk bu baax a baax njariñul kese la euh, mag ñi dañ daan wax ne mag magi tarixa bi yëpp ba ci sax mag ñi nekk taalibe ci nekk gànnaar solo naa ko ci ñu bare bari dañ ne ñi ko fonkoon ñëpp ca daan ko def boo leen dee seetlu boo amee seetlu ñu jege yàlla la ñu doon ci wér du xam ngeen ne dañ ne day àggale nit ki ci yàlla yuusilu ila allahi taala loolu doy na sëkk sëñ Tuuba àggale ñu ci yàlla lañ ko doon doyee mooy euh, xamal ñu yàlla àggale ñu ci yàlla def ñu ay jullit yu mat sëkk wérdu bi day def loolu nga xëy day mel ne kon wérdu bi mënees na ci jàng ne ci yoonu yu gën a gaaw ci tarbiya nit ki ci la bokk nit ki bu ko defee jàngal ko wérdu bi ni ñu ko war a jàngee jox ko ko ci ndigal wax ko sart yi nag te muy def sart yi doy na loolu fi ne xeet tarbiya la gu gaaw a gaaw murit saadix lay doon tarbiya la goo xamante ni la eh, mën nga ko def te doo ko seetlu bu soobee yàlla li baaxoo def ku tarbiya yëpp dana sellal xolam ba ñu baax ñi dana leen bëgg bañ ñu bon ñi nit ñu bon ñi dana rafetal xolam ba bakkaar dana rafetal jikkoom ba bakkaar yu mag yi waxuma la yu ndaw yi waaye yu mag yi du ko jege ak yu ndaw yi kon yoonu tarbiya la wu gën a gaaw dañ daan wax ne ñi koy jëfandikoo ñëpp koo ci xool ñee ko loolu moom dëggal na waxi sëñ Tuubaa ku ko doon jëfandikoo dañ lay ñeewaay doo ñee kenn waaye nag lan la ñuy ñeetaane mooy nit ki digganteem ak boromam waaye nag ñun dañuy ñeetaane ci loo xam ne léeg-léeg nag dëgg dëgg amul solo wërsëg la te wërsëg nañ bàyyi xel ne yàlla noppi na ci séddale na ko ba noppi sëñ Tuubaa ngi ñu wax leen ci téeram yow faraxal mawla min arba'in ajal mi wax ne am na ñeent yoo xam ne yàlla noppi na ci ab dikk waaye boole na ci wërsëg kon nag wërsëg mbirum yàlla la suñ borom ëpp leente ko ak néewlante ko beneen mbir la yàlla noppi na ci yàlla ku ci nekk lim war a jox jox na la ko ba noppi nga dund boo dundee bu soo yàlla incha allah taala moom da jot ci la lim la war a jox waaye dalay àggale nit ki ci yàlla dañ daan wax ne maa ngi fàttaliku rek Cheikh Mouhamad ibn Mouhamad Ahmad Miski bis ma ko ma ci waxtaan ak moom maa ngi ko waaw wirdu wi da day àggal nit ci yàlla mu wax ma ci lu bare bare ne ma loolu jaadu na li ci nekk lépp luy àggal nit ci yàlla ne doy na sëkk rek asmaullahi alxusna yi nekk ci mujj ne ma lool lu ne man na ko ma ci ma leeral ko nekk lool de sax boroom xam-xam yi nekk ci tarixa bi am na tegtal yu bare bari yu ñu day mel ne dañ ne ñoom biñ ko càmbaree sëñ daana ñaanal na ci ñëpp gox yi nekkoon ci Sénégal waaye loolu ab junj la ab tegtal la yoo xam ne rek xëy na ñu ñëw ci borom xam ko ci génne waaye nekk noonu ba tey sax boo ko xoolee ba ci albilaad àdduna sépp dugg na ci albilaad Sénégal gépp ak àdduna sépp mu ne loolu kiimaan la ginnaaw bi lu ma gën a yéem loolu damaa jàppoon ne sax lu ñu waa magi borom xam-xam ne Sénégal yi rek koy wax waaye gis naa Mouhamad ibn Ishaq Omar mi nga xam ne sëñ bi ko joxoon wérdu wi kenn ci doomam yi bis wax ma ko ne bàyyi ma ko ma sox di ko tegtal lu ci nekk naan lu ci nekk xëy na am na rëms bu mu yor te junj bu mu yor nga day mel ne rek sëñ bi da ca jubloo ñaanal da ca jubloo defar ñëpp daa wax may lu yéemu ne ma dañoo seetlu woon ci magi taalib yi fi nekkoon yëpp te fonkoon werd wi koo ci gis yàlla da koy dimbalee lu baree bari ci saahir nii gudd fan lool daana ma wax ne moom Cheikh Mouhamed bin Ahmad Miska moom rek doy na sëkk misaal li ñuy wax ni Cheikh Mouhamed bin Ahmad Miska sembule na ko rek nit ku baax àgg ci yàlla lool ëpp xam-xam ñëpp ragal yàlla lool di ko jaamu wéetal yàlla ba nga xam ne dëkkoo wut ak leneen lu yàlla moom rek la dëkkal bëggut lenn boromam dong ci la jublu si liggéeyal wirdu wi lool yàgg koo jëfandikoo ca jox ko mbooloo mu bare bare bare bari ñu ma xam ñun ñi rek alhamdulilah bu yàggut yeesalal nañu ko maag ay nit ñu baax ñu jóge woon fii Touba demoon Mourtani ngir ndigal lu ñu fa seex sëñ Mouhamadou mu taxaw ni woon yeesalal nañu ko ñun ñëpp soññ ñu ci lool mas ko ciy laaj Munema, ne ma ma ne ko lu ngeen daan ràññee ko yéen ñu ko daan jëfandikoo wérdu wi taalibe yi mu ne ma dund gu neex lool mooy gudd fan njaboot gu baax gu barkeel masalan ak am aajo ju faju ne ma waaye nag li ëpp solo lépp lañ ci daan seetlu mooy istiqaamat dañuy ragal yàlla foo leen fekk dañu nekk ñu fi nekkal yàlla jox ma misaal ne mag ñëpp mag yi Sëriñ Tuubaa yi noonu lañ ma leen foofu ñëpp ñu ko bu yàgg Cheikh Sidi Ahmadul Ismu Ismu nga xam ne Mahamadou Omar tarixa yëpp cheikh eh, ahmad ibnu yaxya boo demee ci xaaji yu ni ñu ko toppoon day may ni yu nga xam ne bari woon nañ ci lool ma macc ci rek ñëpp ne ma daal loolu lañ seet waaye lool it mooy li nga xam ne moom nga gis fii rek kon daal na ko ma ñu ngi ciy waat ñëpp mbokki taalibe yëpp nañ ko fonk am na it lu mat di leeral ñu bàyyi xel ne wirdi wii ci suñuy symbole la bokk kenn du toog ci garab di ko gor te léegi léeg nga gis koo xam ne xëy na xërëm lay doon da nga gis koo xam ne du xërëm waaye ñàkk xam lay doon ci moom léeg-léegi da nga gis muy dugg ci détail yoo xam ne question sax da gis nit juum la ba lay laaj la question yoo xam ne ci wérdu bi dëgg dëgg da nga man am na ko xam ne bu yàgg da wax naa ko nee naa ko diw mu laaj ma ci question yi kii waaw lii daal xanaa moom jàpp naa ne nangam ak saxal diw daana ko def diw daa ko def ma ne ko am na yoo des ko def du wóor na la wérdu wi ci Cheikhul Khadim la jógee wóor na li fonkoon na ko jox na ko ñu baree baree bare diw ak diw ak diw ma ne ko loolu na la doy yow bul doon koo xam ne toujours da ngay xëy di bind ak a wax loo xam ne day loo nit ñi ci wér di ba duñ ko def loolu laa tontu kooku ndeysaan mu ne ma li nga wax de lu wér a la incha allah laa jëfandikoo moo tax ñun nag nañ góorgóorlu ci loolu moytandiku yenn wax yi nga xam ne da ci tayaloo nit ñi lu baax fastabiqul xayraat la ñu yàlla wax nañ ci sawarloo nit ñi surtout li nga xam ne ñun sikk sàkk wuñ ko du loo xamante ni dañ naan law kaana xayran ma sabaquuna ilayhi aw yiw bu ko bu doonoon lu lu nangam ak lu lu xéewal ak nangam mag ñi di ko def waaye laay yaa mag ñi ñu ci fopp. day ni sëkk misaal bi nekk ca jot ci yónnee ko magam ju baax ji Mamour Diarra man mënta dem booba mi ngi woon fii loolu xam nga ne aw yiw la mag ñi ñu ci jiitu woon ñoo ngi ñi di waxtaan ak ñoom ci leen ciy gën di sawarloo am maa nag wax ak andi loo xam ne da ci taayaloo loo ñi ak di ci sikk sàkkaloo nit kenn du ko def ñu xam ne wérdu wi ci suñu symbole la bokk ci suñ patrimoine ci li ñu sëriñ bi bàyyee ci la bokk moo tax nañ ko fonk li ma wax léegi rek kenn du toog ci caru garab ba noppi di ko gor nit nag dana ko def léeg-léeg ngir xër nit dana ko def ngir ñàkk a xam waaye nañ koy moytandiku bu baax a baax loolu loolu musiba la am na yoo xam ne yu ñu war a fonk la xatta ahmar la war doon kenn war koo kafe góorgóorlu di ko jëfe yàlla natt na la am nga ngàntul mënoo koo jëfe wala yu mel noonu taloo ko wala yu mel noonu bàyyil ñu koy def nag sawarloo leen ci waaye su ci jataay ñenn ci laaj lañ koy jaarale ñenn ci nangam lañ koy jaarale ñenn ci wax joxe na boo dégloo léeg-léeg da ngay comprendre da ngay xam ne kii li muy wax da ko deful rek bu sañoon it nit ñi nekk ak moom foofu ca loolu nag dëgg-dëgg musiba la ku koy defee nag da ne wóor na la yaa ngi ciy am yaa ngi ci yaa ngi def lu rëy rëy loo xam mën na laa andil musiba wala yaasu billahi taala nañ ci góorgóorlu nañ ci soññ nit ñi nañ ci soññ taalibe yi nañ koy jël di ko jël niñ ko war a jële ci sart yi ci di ko jëfandikoo wallahi alazim de Serigne Touba de lum ñu lii mag ma waxoon rek lim ma waxagut laa gën a gëm ci lim lim ma lim ma wax ba noppeeg lim ma waxagut laa yemale wallaahi lim ñu ci dig lépp dañ ko gis mu'min muslim muhsin àgg ci yàlla yàlla musal la ci pexe yi jafe-jafe àdduna ak alaaxira yëpp loolu nag doy na sëkk moom la nit kiy wut wa billahi taala tawfiq wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. اكتب لمن أحب وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين غشا نجمعا اكتب لمن احب وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به توابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به توابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معاك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 ginnaaw nu yoo bi ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel ci weeru màgg ñu bàyyi ko mu weeru koor di leen balu di leen ko baal tey ñaan suñu borom boole ñu jéggal nangul ñu mboolem suñuy jëf yu baax jéggal ñu mboolem suñu rëcc rëcc yàggal fi suñu kilifa ku tedd gi Cheikh Mouhamadou Mountakha may ko wér ak kàttan ba fi mu bëgg a liggéey bi mu yeggale ko fa te ñu ànd koog moom di ñaanal mboolem kilifa yoon wi ak kilifay réew mi di di ndokkeel itam ci xew-xew bu mag boo xam ne xewoon na ci dunduk sëriñ bi ak ci yoonam bi muy jox gi ko sunu boroom jox wird wow boppam wu mu jagoo ñu koy wax al wirdul maxuusu min allaahi bi waasitati rasulihi alayhi salaatu wassalaam yaqazatan la manaaman muy wirdu joge ci yalla jaare ci yonante bi sallallahu alayhi Wasallam, mu jot ci jahran ci luddul ay nalaw yonante bi jox ko ko ci luddul ay nalaw muy muy mebet ak bëgg-bëgg bu kawe bu mu bëggoon don ko sentu di sakku ba sun borom may ko ko ci wéru koor ci atum junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn ci barab bu ñuy wax Sarsara ci Mauritanie ci la njëkk a jote euh, wérdi bi nga xam ne mooy euh, mooy euh, kii bu njëkk bi xaaj bu njëkk bi maanaam joxin bu njëkk bi ñu koy wax alxafiif ba demee ba ca Chaban maanaam baraxlu ca topp ba koor gee waaj a jël kon ci la jotaat weneen wird weneen weneen weneen wird wi mooy weneen joxin wi muy ñu koy tuddee alkaamil muy ñaari wird yi nga xam ne kon mooy ñaari jàngin yi ñuy jàngi wird wi te yëpp doon benn loolu kon xew-xew boobu kon mi ngi amoon ci weeru koor ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru koor waaye mi ngi ko mi ngi ko génn nag joxe ko ci juróomi fan ci weeru shawwal muy korite boobu loolu xexo mag mag ci diine di xexo mag ci dunduk serigne bi ak jaar-jaaram lolou tam ñu ci ndokkeel mbolam julit yep nak rawati na talibé wird bi nak euh, nek lu am solo ndax wird wo xamne euh, nituk yalla ci jot bu joge ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu jox ko ko loolu la ñuy tuddee tariqa ci tasawuf ci li gën learn, learn. خير ضيف baax ci dagg gi waaye waxtu bee ñëwoon rek ci tàkkusaan gi xam naa soxna yi tamit bu mënee jaar na lay mën a dem ci booru soxna yi pour خير ضيف هذا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فطاو هب لي فتحا هد عجبا يا خير هاد هدا امرا وخيرانا السلام عليكم ورحمه الله بك طالبي نيغي نيكو تي نتي توم اك سانتام تي نيانال شيخ محمد المنتهى مي ياك في اك شيخ امدي مودو مندا اك مبولم شيخ بامبا دي ndokel mbok talibe yep ci wéru koor bu ñu joggé di len siyaaw baax di ndokel ñëpp ci bis bu màgg bi nga xam ni dañ ko taxawal ngir di ci soññante ak di ci fàttalante ci li nga xam ni dafa jëm ci tawféex ñu sëriñ tubaa defal muy wér du maaxaw su màgg wi nga xam ni bis la boo xam dañ ko taxawal ngir di waxtaanee di jëm ci wér wi ak di ci soññante ak képp koo xam ni am nga ci loo ci bëgg a xam ak loo ci bëgg gëstu soo ñëwee borom xam-xam yi fi nekk nga mën leen koo laaj ñu ñu ñu ñu barkeelu ci wax ci loo xam ni lu wér lay doon soññ ci mbokk taalibe itam ngir ñu mën cee góorgóorlu kon programme bi ni ñu ko tënkee woon defe naa noonu lañ koy woyale ñu ngi sant kuréel xuyóoru muharram bi nga xam ni ñoo doon barkeelu léegi laata julli gi di leen sant ci seen teewaay ñu wax ni kuréelu nuuru daari ni war na fee barkeelu si Cabridis waaye ñi wax ñëpp ni comme bis bi dañ koo jagleel wér du maaxuus dañoo bëggoon amoon yéene mbokk taalibe yi fi nekk yëpp comme waxtu wi waxtoom la su kilifa yi ñëwee ñu mën a toogandoo ñu ñëpp barkeelu ci maanaam jëfee werdu wi fii dundal ko ci barab bi loolu def naa moom mooy topp ci programme bi kon xam naa ci ñi nga xam ni maanaam amuñu ko te bëgg ci bëgg koo am defe naa sëriñ mi ngi fii sëriñ moom képp koo xam ne jege nga ko rek wala nga bind ko dina la ko envoyé xam ne di nga ko mën a yokk surtout mbokk taalibe yëpp di di defandoo nga mën ci ànd kon dañuy xaar defe naa kilifa yi ñoom sëñ Issa ak sëñ Ahmadou suñu ñëwee ñu tàmbali liggéey boobu suñu noppee kuréel gi commencé su jeexee nag waxtaan bi si lay tàmbali nga xam ne waxtaan wi lu luy woy lay doon mel ni sëñ am di mu ngi fi ak waaw sëñ Mamour Amdi mi ngi fi ak suñ Ahmadou ak sëñ Issa nga xam ni ñoom dinañ amal waxtaan wi képp koo xam ne tam am na laaj woo xam ne dafa jëm ci wérdu bi wala ay leeral yu mu yu mu am na ko waajal na mbokk taalibe yoo xam ne dinañ ñëw jël ko suñ ko yëkkatee fi nga xam ne ñépp mën see jariñu ñuy wax ni itam képp koo xam ni bëgg nga eh, maanaam jàng wérdu bi te kayit gi jàppandiwul wala mokkal gi jàppandiwul am na application web du maxuus goo xam ni képp ku dem ci Play Store wala nga dem ci euh, Apple Store daanaka dina jàppandi foofu xam ni soo ko téléchargé di mën a am wérdu foofu ba noppi di ko mën a ànd ak mbokk taalibe kon xam naa dañuy xaar euh, kilifa yi suñu accès rek ñu tàmbali liggéey boobu asalaamaaleykum wa rahmatullah ila

kon ñi ngi ñi nga xam ne ni euh, képp koo xam ni euh, am na yéene barkeelu ci werdu bi rek mën nañoo tàmbali ndax dafa mel ni sëñ Ahmadu moo ko waroon tijji euh, moom te tàmbali na ko kon xam naa mën nañ koo tàmbali bismillah Amen. المرسل sant bu baax kuréel Nuuru Daarayni ci njàng mu neex mi ñu ñaan suñu borom nangul nu bu baax te saxal ñu ci xasida yi xasal saxal ñu ci liggéeyal Serigne Touba kon xam naa dañuy jublu ci waxtaan wi di jox kàddu gi sëñ Abdou Khadre ba nga xam ni moom mooy modéré waxtaan wi di fàttali képp koo xam ne am na looy laaj sëriñ Diop mi nga xam ne moo sol baylaat bu jaune bi daanaka mën nga koo jege leeral ko li nga bëgg a laaj ngir waxtu wi nga xam ni su jotee ñu jotal ko ñu jotal ko ñëpp mën see jariñu kon loolu moom mooy li ci aju ñi fàttali itam ni képp koo xam ni bëgg ngaa jël werd wi wala nga jëloon ko ba noppi bëgg koo yeesal suñu paree ndax ñu ñiy ñëw di sàkk daa bari ñoo bëggoon ñëpp dajaloo rek suñu defee waxtaan wi ba noppi suñu Ahmadu daanaka mu matal liggéey boobu ñu demee ci moom ci ñi ko bëgg jël wala ñi ko bëgg a yeesal suñu noppee nag li jëm ci charte yi xam naa lu ci bari dinañ ko waxtaanee dina am mbokk taalibe yi fi nekk yoo xam ne itam lépp lu jëm ci leeral ci fànn woowu dinañ ko def asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين نوغي نيو مبوك ييب دي نيانال شيخ محمد المنتقى رضي الله عنه سونو بروم غودال فنام تو ياغال كو في كو خامي نيون ييب نيغي تي تاي فاني كوري دي بيس بيغا خامني bis bu am wàccu wàccuwaay la ak delluwaay ci histoire histoire yoonu murit rawatina werde wi nga xam ne moom la ñuy wax al werdul maxuus min allaahi bi wasitati rasul sallallahu taala alayhi wa sallam muy bis bi nga xam ne ci la sëriñ bi njëkk a génnee werde wi jox ko kenn ci ay taalibeem ni ko taalibe booba waxee ci ne abrazahu ama shahidna na karama xaamisa shawalin xafifan sullama kon loolu rek moo sabab jotaay bii loolu nag bu jotee ñu jàpp ne dana yàlla ñu fàttali mbokki taalibe yi wàccuwaayu werd wi ak njariñ li ak li ci sëriñ bi dige ak nim ko digalee mbooleem taalibe mi kon fàttali googu rek moo fi tax a toog kilifa yi nga xam ne ñooñ ci fas yéene defal ay tomb ngir fàttaliñu ko mu doon bis boo xam ne it dina baax lool ci bépp murit boo xam ne jëlagoo ko woon occasion la ci nga jël ko ndax serigne Touba neena werde wi yalla moko ko jox jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi jox ko mouride jox ci ndigal mouride yep ngir ñu diko jëfëndiko kon bisu tay bis bu barkel la ci ko xamne tew nga ci jotaay bi ti jël ko nga bayyi ko xel bala nga dem bu fekke jappan na ci yow jokk ak serigne Fallou sen wala serigne Diop inshallah bu ngeen joxee seeni tur rek bu ñu demee ba ca mujj ga sëñ Ahmadou dina leen koo jox insha allah ak sëriñ Isaak sëñ mamoor kon dañuy daal di dugg rek ci jotaay bi jox sëriñ Mamor Mbàkke di mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko xam nañu taxawaayam xam nañu xam-xamam ci tomb bi su ko defee mu def ci ay fàttali ci wax ñu wérde wi ci boppam ak wàccuwaay bi mu am ci sëriñ bi ak ni ko sëriñ bi digalee woon murid yi ak ni nga xam ne noonu lañ ko fonke woon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 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي نيو مباكي في تيو يب دي لين سياري دي لين روكيل تي بيس بي نيكو سيرين جيل وخي موي بيس بو خامني بغوك سيرين بي رك لا نيو تي داك تي رافن جوت لول ني مانيس نكو تي ام di ubbee kàddu yi rek ci loolu mu ko ubbee te mooy ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak ba yéene ji mu am ci liggéeyal ko sëriñ bi mu def ko ni mu ko bëggee di ndokkeel ñëpp ci bis bi mu wax muy bisu juróomi fan ci weeru shawwal di bis bi nga xam ne moo dëppook bi Maolana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu joxe woon wird wi taalib yi nga xam ne ñoom la ko suñu borom booleeloon jox ko mu leen ko joxoon moom la ñuy joxalante di ko joxalante ba ci suñu loxo ba tey jii ñu mën a daje fii di ci sant suñu borom ci tawfeex ju rëy jooju mu ñu defal nga xam ne am na fu mu tàmbalee muy at moom ko sëriñ bi joxe waaye amul fenn fu mu yem ñuy ñaan suñu borom bañ a dañ ci di ñu fayal sëriñ bi di yokk ay mayam di yokk ngërëmam di euh, lii sëriñ ji li wax nag ci waxtaan wi jëm ci alwirdul maxuus minallahi bi wasiti rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ak tënk rek laa koy def ndax waxtu yi xam ngeen ne xaw naa xat tuuti euh, wird al wirdul maxuus bu ñu koy wax faaw ñu delloo ko rek ci li mu bokk mooy Euh, sëriñ bi bi mu ñëwee daa am ci tool bu mu nekkoon muy toolu lislaam bu ñu yàggal mbiram mënuñu koo génne biir lislaam googu bu mu nekkoon ci biir lislaam googu bu mu nekkoon it yoon wi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon ñi toppoon ci ginnaawam ñëpp jaar ci muy wéy bañ di woowee yoonu ahlu tasawuf te xam ne mooy li fi yonent bi sallallahu alayhi jaare woon rek mbiram it bu ñu koy xool ci foofu rek lañ koy mën a xool ndax indi wu foon lu dul rek euh, li nga xam ne moom la yonent bi doon woote naka jekk kon wirdu Maaxuus googu nga xam ne moom la ñuy waxtaanee nag dafa doon loo xam ne xëy na sëriñ bee ko jagoo waaye jëmmi wird rek lu ñu xam la ci biir lislaam ci boppam euh, danaa mën a tënk rek ba ñu dugg ci détails yu bari yi ngir waxtu yu tënku waaye ci gàttal rek xam ngeen bu ñuy waxee wird ci biir lislaam rek liñ ci jublu ci lu gën a yaatu mooy jaamu yàlla goo xam ne jaam bi da koo jël warlul ko boppam donte waru ko woon loolu nag mën naa doon ay bis yu muy woor yu ak weeru koor mën naa doon ay julli yu muy julli yu bokkut ak julli juróom mën naa doon saraxe yu muy sàkk mën naa doon euh, ay lu muy jàng ci alxuraan mën naa doon xasida man naa doon leneen maanaam jaamu yàlla goo xam ne waru ko woon waaye moom mu jël ko warul ko boppam loolu danañ ko wax jublu ci biir ci biir lislaam gépp rek loolu ñun ñi suñ bokki julli yëpp ñoo ko bokkale danañ wax wird yi jublu ci benn xaaj ci biir zikkër muy tudd suñu borom subhanahu wa taala loolu danañ ko wax xaaj mu gën a xat kon kon jóge na ci xeeti jaamu yàlla yi yaatu yëpp jëmb rek ci genn wet ci biir xeeti jaamu yàlla yi mooy mu dugg ci buntub zikkër ay turu yàlla yu ñuy tudd ay istighfar yu ñuy def ay salaatu loolu dinañ ko wax jullu ci am nag meneen maanaam moo xam ne tariixa yi ci lañ ko gën a mooy euh, ay baat lay yoo xam ne day am lim buñ koy jàng ak waxtu yuñ koy jàng mu jóge ci sëriñ bi nga xam ne moo jiite tariixa bi mu jox ko ñi nga xam ne moo leen jiite wutal leen ay waxtu ak lim yoo xam ne moom lañ koy def ñoom ñëpp loolu lim ciy jublu moom it mooy bu ko suñ borom yebalee mu ñëw mboolem ñi nga xam ne dañuy yor turux suuf yi yépp wala ñi am ay daawaat ay woote ci biir tarixa yooyu li leen indi woon rek mooy woo nit ñi euh, defar seeni jikko ak seeni xol bañ mën a doon jullit ya suñu borom bëggoon mooy ñi nga xam ne dañu ñëwoon rek ngir sàkku ngërëmu suñu borom subhanahu wa taala kon ñoom wird jumtuwaay la rek bu ñuy jëfandikoo ab moyen bu ñuy jëfandikoo ngir tarbiya seeni taalibe loolu nag tarixa yépp dañ koy am ni nga xamee ne am nañ ko ci tarixa yépp muy nag may gu rëy goo xam ne doonut ne nit tey toog noonu rek teg ay limam ne li mooy wirdu wi yokk waa këram déedéet waaye day doon loo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moo koy baaxee ki ko neex ci gaañam yi nit bokk na ba tàyyi ci gaay suñu borom subhaanahu wa taala te amul wirdu boppam kon may rëy la goo xam ne euh, ñun am nañ tawféexi suñu borom baaxee ko sëriñ bi waaye may gu rëy la goo xam ne boo doon lim ñi ko am ci ñi ñu fi xam ci al aalamul islaam yi ci ay baaraam nga leen di wàññi ñu néew a la donte gaañu baax ñu bari nañ donte may yi bari nañ kon loolu rek mooy wirdu jëmmi wirdu rek nag ab murit mënu ko ñàkk a fonk ndax Cheikhul Khadim radiyallahu anhu da koo fonkoon dëgg la suñu borom def na bi mu ñëwee njaboot gi ko suñu borom boole njaboot gu nekkoon ci ahlu tasawuf la fonkoon ay wird mu ñëw jaar ci yoon woowu ñu toxi ko ci mu jël wird wi ci waajuram euh, di ko wird yeesalaat ko ci ñu ko gënoon a jege xëy na siñ Sàmba Tukulóor tam nga xam ne jàngal na ko lu bari jombut suñu bi soobu mi nijaayam muy wéy ci noonu ba ni fi suñu morom sali jógee yemut ci loolu waaye bëgg lu baax gi nga xam ne suñu borom da ko koo mooñaale muy la sëñ Bachir waxoon ci meneen ne xuli xarabaaniyan maanaam suñ sëñ bi noonu mu mel demut ba bañ naan ba mu tollee at sàngam ci nii dana bërit ñu gis ko mu mel noonu ndax gis ngeen sëñ Bachir di wax ne sëñ bi nee na mas naa dégg waajuram am ay gan di leen wax ne leen bu njëkk gaa ñu baax ñi dañ daan def xiyaamul layli من دأب من دأب من دأب من دأب صالحين كان من دأب صالحين خيام الليل ولا خيام الليل نانا بيم دغه تاخو غودي بوبو نون ني غاني باخني كات دا فا بوكون سي ني غاني باخني دا فا بوكون سي لي ني دان ديف موي تاخو غودي تاخو غودي خام ген خيام الليل بو نكو وخه سي الاسلام نانجي جوبلو موي دوندال غودي سي اي جامو يالا مو خام اي جولي لا مو خام اي اي القران غاي جانغ ولا دوندال غودي دال bi mu déggee taxaw guddi mu jàpp ne taxaw lañ bëgg a wax nii ne guddi googu moom daanaka dafa fanaanee taxaw bu taxawee bàyyi tànkam metti mu doxantu tuuti ginnaaw bi nag la doog a xam ne bu ñu waxee taxaw guddi daa am lu ci jublu kon loolu dana bëreet rek ànd ak moom wéy ak moom sëñ bi mbaax gi noonu la ko suñu borom bindee mënu ci dara gis ngeen ngan googu mu nekkoon rek bi mu toogee gan gi ak taalibe bi ba yàgg borom gan borom kër gi di indi soxnaam ngir sëñ bi nuyu taalibe bi xam ne ne bi du xool jigéen ab jàmbur lamp bi doon tàkk mu gaaw ko fay kooku ñëw indi gan gi sëñ bi ñaanal ko ba mu dem taalibe bi jugaat di taal lam bi ne ko maa ngi jégalu kat ndax soxna si doon ñëw moo tax ma fay lam bi sëñ bi ne ko yëgu ne da nga koo ndax bi ma déggee mu ñëw damaa gëmoon nga xam ne mbaax gi du du du lu muy jéem nii waaye suñ borom a ko bindee nan subhanahu wa taala kon noonu la woon ne woon bëreet rek bi fi suñu waram seli jógee wër na fu ne yeesal fi wird wi dem fi gànnaar ñëw dem fu mu xam ci ñu baax ci diggante boobu jënd fi sax al wirdu chaazili jël fi al wirdu tijaani yi di ko barkeeloo ñaare boole ko wirdu xaadir bi nga xam ne moom mom la fekkon ay waajuram yor ko mu jappé ko bitu bopam gis ngeen bëri ndulum ko wax ci bindi yaqul ahmadul faqir jidda tuba wi al qadir yubirza lol nga xamne mu nekké tuba ci lako ko bind ci atum 1309 waye wala 1310 bi démé ba ci euh wéy ci nonu ba ci bi muy bëgg dem ci géej gi nag xam ngeen jamono jooju wër na fu ne lu baax sëñ bi sax wax na ne jamono jooju boole woon na ñetti wirdu yooyu muy wirdul xaadir yi ak al wirdu tijaan yi ak al wirdu chazali donte wirdu xaadir yi moom la jàppee wirdu boppam waaye ñaaree da ciy barkeelu ne daana def bu toogee ci benn jotaay balaa jóg day wirdu ñett yëpp doo ko jóg xam ngeen loolu jitte ju kawe la ci wut suñu borom subhaanahu wa taala ak nangu ne lu baax fu ne la ko suñu borom def ndax suñu borom it xereñ gi dafa àgg ci fu ne lay def lu baax moo tax doo xeeb dara kuy taxan doo bàyyi genn mat mu wéy ci noonu ba ni mu xëyee nag suñu borom baaxee ko mu gis bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la doon dàkk ci fu mu àgg ci moom nag gis ko bi mu àggee foofu nag sëñ bi daal di dugg ci léegi beneen duggin bu bees mooy daan na wër fu ne lu baax waaye nag daj na jëm mi fi nga xam ne mooy source bi fi la mbir mi jóge muy yonente bi saa sallam muy lu mag loo xam ne dañuy wax ci yoonu soobu ne nit ki bu àggee ci gis yonente bi saa sallam jaxaran rek seetaan mënatu ko yàqal moom sëñ bi am ndimbalu tawfeex lii may wax bi mu koy am demagul ci géej gi li muy woowee liggéey bi dafa gu ko boobu kon liggéey bi leneen la suñ borom baaxee ko loolu diggante boobu nag ci la soppi ñum daan woowee ay sëriñ woowee tu leen ay sëriñ mu ne bis ni ki tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la jàppee muy ab sëriñ moo tax loolu su ngeen demee da ngeen di gis lu bari ci mbindam mu di ko wax daal dina wax diggante boobu nag mu mu bàyyi wérde yee mu yoroon moom muy ñettee jàpp alquranu karim azizu saara wirda lii wa ni wax waxin yooyu noonu rek baana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa rasul képp koo xam ne am na xel rek xam ne ne benn sëriñ la am te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ubaayi'u al-yawma rasuula al-Mustafaa bi xidmatin wa asalu llaah al-wafaa ne bis ni ki tey maa ngi jaayante ak Yonent bi salaam ci di ko liggéeyal te dootuma ci jóg ba ba ma wuyu ji suñu borom subhaanahu wa taala zaliltu aabidan xadiman li rasul min aami aychasin ila aami rahid ne li dalee ci at mi ba ba ma fi jóge dootuma dañ ci digg di ko liggéeyal moom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci noonu la bàyyee tarixa yële sëñ bi kon jóge ci tarixa dem ci li ñuy wax tariq manam bayina na tariixa yi waaye génn ci yoon tasawuf ndax ñaar yooyu bokut bu waxe tariikh bi ñëpp ci lañ ne tariixa yi nag ci biir tariikh bi la nek xamnañ ci ay góor yàlla yu mag ci ahlu tasawuf ño xamne ne ñoon ci benn tariikh waaye ñi ngi woon ci tariikh bi nak digënté bobu nak ci la sëñ bi ne ci la dem ci géej gi ci la am lim am ñu joxat ko wérdi yi ñoom sansam joxat ko ko al mashayikh salasa ya salatal ko ko mu jógee fa ñëw ci jóge ci géej gi ba nim démé demee gànnaar nag ci atum 1321 muy at mam ci at mam fa dem ci wëru koor wa te la ko suñ borom baaxee nag may gu rëy gi nga xam ne ñaan na ko fu ne suñ borom suñ borom baaxee ko mu am wirdu boppam nag ni nga xamee ne noonu la ko doon xencoo ci ñetti nit ñu baax ñi muy kon may gu rëy gu ko suñ borom dafa ci biir weeru koor xam ngeen sax da koy junj lu bari eh, ci mbind yi eh, samadu xad awsaltali fi ramadan maalumtu min ko xablahu bi fayadaan waaw ajran kabiran wa saaban wa jaza wal waadali fi ramadan na jaza na ko la nga ma digoon jox nga ma ko ci weeru koor te bi nga ma ko jox sax da ngaa rek mu dem xam ngeen ci weeru koor sax am na ñenn ñum duñ ci mag ñi ñu mel ne suñu am satu jaxate loolu leen wax ne suñu borom am na lu mu ko digoon jot na ci bi mu ci jotee nag ba ci bis ni tey muy juróomi fan ci weeru shawal ci la ko génne jox ko njaboot gi muy axrajahu ama shahidna karama xaamisa shawalin xafifan sullama lil kaamil muxraj muy way mu jot kon wirdi wi jox ko taalibe muy may gu rëy xam ne bis tey am na mbirum boppam am na tarixa boppam am na loo xam ne moo ko jagoo jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy yoonu tarbiya woo xam ne mësee su koo jox ku dul moom tey la ko ko yonent bi sallam jox mu moom ko jox ko njaboot gi ak képp ku bëgg ci jullit ñi kon loolu mooy jaar jaar bi wirdu bi jaar ba sëriñ bi jot mu amoon yitte lool ci njaboot gépp jël ko nag ba mu ci jotee jox ko ñam ko nekkal yeble ko yónnee ko ci réew mi jox ko ñu mag ci kilifa yi ñu mel ne sëñ Mor Jaar mi magam sëñ Mbàkke Buso ñoom borom daara moo tax ñëpp ñi ñu fi xam ñëpp xamaguñu bokk kuñ ne diw moom sëñ bi jox ko woon wirdu ba fii may toog di wax waxaguñ ñu ne diw sëñ bi jox ko woon wirde wala digal ko woon mu daal di bind ca bu njëkk ba ne lii mooy wirde wi mu jëlee ci suñu borom subhanahu wa taala mu jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moom wastaamalahu mi ngi koy jëfandikoo wa amaral mu taxal daan jëfandikoo te digal na mu wax ne mi ngi koy jëfandikoo te mboolem ñi nga xam ne dañoo aju ci moom te ay góor ak ay jigéen digal na leen ñu di ko jëfandikoo fépp fu ñu mën a nekk te bu ñu ko sàgganee mukk muy kon ndigal loo xam ne képp ku ne ab murit nga rek dugg nga ci biir ndigal loolu moom ndax sëñ bi ba mu koy diglee it dana ñu aju ci moom te ay góor ak ñu aju ci moom te ay jigéen te ñu jàng xam nañ ne bu ne woon al mutaalliqiina rek bu ne woon ñu aju ci moom ñëpp dugg nañ ci waaye bëgg a dindi lépp luy indi lënt moo tax mu ne ñu aju ci moom tey góor ak jigéen ñëpp diggal na leen nañu koy jëfandikoo yemut ci loolu yónnee ko ci njaboot gi nekk fii yemut ci loolu bi mu ñëwee njaaram it mu móollu ko bitim réew tasaare ko ci njaboot gi kon def na ay actes it ngir ñëpp mën cee jot wird wi nag ci ku xamul lu mu doon ay baat la yu ñuy jàng ay baat yu ñuy jàng yoo xam ne dara génn ci euh, alxuraan ak xadiis ay tudd suñu borom la kañ suñu borom bàkk ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yu ni mel am na it ay xeet yu wuute am na lu ñuy woowee xafiif mooy bi njëkk a génn am na boo xam ne ca gàmm ga la ko jot mooy kaamil am na bu ñuy woowee xaatim ñoom ñett ñëpp it danañ leen woowee al wirdul maaxuus benn bu ci nit jëlit mi ngi ci biir wirdu maaxuus amul benn bu ci gën moroom ci gën nañoo guddante mën nañoo ëppante doole it nag waaye gën a wér gi moom amu ci ndax yëpp yu wér la te yëpp ci sëriñ bi la jugle te la jóge te bu ci waay jëlit mi ngi ci biir donte euh, kum neex mu xool ba gën a gudd ngir rek gën a mën a tënk boppam ci tudd suñu borom ak màggal kon loolu mooy xeet yi nga xam ne moo ci am bu dee waxtu yi ñu koy jëfandikoo wirdu maaxuus dafa am ñaari xeeti jëflan jëfandikoo bu njëkk bi mooy jëfandikoo goo xam ne nit ki benn rek la jël ci ñett yooyu di ko jëfandikoo xaatim kese la jël wala xafif rek la jël wala kaamil rek la jël di ko jëfandikoo su boobaa suba ak ngoon la koy def ginnaaw julik suba ak ginnaaw julik tàkkusaan waxtu bi gën yaatu tuuti waaye ñaari yoon yooyu la koy def su ko neexee nag mu boole boole gi da ngay jël xafif ak xaatim wala kaamil ak xaatim noonu lañ koy boolee su boobaa xafiif wala xaatim wala kaamil bi da nga koy jël di ko def suba ak ngoon xaatim bi nga koy def ginnaaw tisbaar ginnaaw timis ak ginnaaw gee tënk bi mooy kon soo boolee ñaari wirdu maaxuus yu bokkut bis bu set ginnaaw julli gu ne da nga am loo wird ci wirdu maaxuus noonu lay demee xafif bi xaatim bi moo gën a gàtt xafif bi moo ci topp ci wàllu guddaay laa bëgg a wax kaamil bi moo gën a gudd ci wàllu guddaayu yax bi nga xam ne moom la ñuy jàng donte xafif moo njëkk génn kaamil topp ci xaatam bi moo ci mujj kon loolu mooy waxtu yi donte waxtu suba gi nag bu ñu ko waxee moom it day am li ñuy wax muxtaar ak daruur yi maanaam muxtaar mooy li gën ko amul ngànt mu def ko ci kañ lay doon bu njël jotee ba ba jant bi di fenk loolu mooy waxtu wi gën ci suba gi ba ba jant bi di fenk su jant bi xasee fenk muxtaar mi jeex na daruuri bi ci lañ ne waaye waxtu jeexagut day wéy di wéy ba zawaal di bëgg a jot mën nga ne ba 13 heures ba tisbaar di bëgg a jot loolu lépp yaa ngi ci waxtu wirdu suba gi su waxtu woo xasee jot te defagoo sa wirdu suba nag waxtu moom jeex na da ngay fay waaye wirdu nag lu ñuy fay la moom waaye fekk waxtu woo jotagoo rek yaa ngi ci waxtu suba gi ngoon gi mi ngi tàmbalee ci ginnaaw jullit tàkkusaan maanaam bu tàkkusaan jotee ba ba njël di jotaat loolu mooy waxtu ngoon waaye dañ koy xaaj moom it ñaari xaaj muxtaar mi tàmbalee ci tàkkusaan googu ba ba gee di jot maanaam kon fi mu ne wirdu ginnaaw tàkkusaan ak kii liggéey mu bàyyi ba ginnaaw timis mu doog a wirdu mi ngi ci waxtu muxtaar mu ba léegi su gee xasee jot nag ba ba fajar di jot loolu ba jël di jot loolu mooy daruuri bi suñ ko xasee jot te defu ko mu xam ne fay moo fi des waaye lu ñuy fay la wirdu wi ku ci amee bor da koy fay lu dul ne dafa am yu tax mu am ci bor ci misaal ki ak ki nga xam ne tawata taxoon defu ko loolu jërul mu koy fay soxna si nga xam ne dafa am ngànt su ko neexee mu wirdu waaye su ko defu tamit loolu du doon lu muy fay ak xëy na li ñu wax ne koo xam ne luqmatu Aysa la doon wut jàpp naa ne tawfeex yi suñu borom yi weesu na foofu sax ci ñu ëpp ci ñun mooy koo xam ne daal mun ñàkkoon na lu mu dundee ba dem di ko wuti tax waxtu wi rëcc ko bu boobaa it mën na koo bañ a bañ a fay kon loolu mën naa koo delloo ci lu jëm ci wàllu waxtu wi lu jëm ci wàllu charte yi charte yi charte yi nag buntu la boo xam ne seytaan da ciy jaar di tiital ñu bari ci ñu bañ jël wird yi ñu bari tey boo leen waxee wird ñu ne la mënaguma charte yi te ñi ëpp ci ñoom it bu ñu la waxoon loolu nga ne leen charte yi yan la duñ la ko wax moom ba buñ la ko waxe dañ ci juum sart yi ku ko xamul rek moo koy jafel waye lu mata xam la ndax ñu xam ne daanaka mën nga ne wérdu maaxuus sart yi bëriwut sart yi ñaari xet la lu ñu wax shurutu sihha ak lu ñu wax shurutu kamal manam shurutu sihha moy mooy yo xamne mënu ca ñak wax deug ngir wedd yu bax yoy ñett la ñett lañ ci xam yo xamne yi mom benn bu ci dañ man nga ne wedd yu gut waye ñett yooyu ku ko mën yi ci dess da ci dem kem kàttan li mata baye xel mooy yi ñuy wax li normal mooy murit bi laata muy jël wirdu maxuus munta matale sart yi ndax li muy doyee wirdu bi mooy mu dem ba nekk murit bu mata matale sart yi kon normal na bu koy tàmbali matalewu ko bu doxee tuuti gis na yëf yaa ngi ñëw yi munta ñàkk ci sart yi mooy ñett yi bu njëkk bi mooy nga jël ko ci ndigal wirdu bi doo dem fekk kon noonu rek jël ko soo ko defee sëñ bi nee na yaa ngi def lu baax waaye defagoo li ñuy wax maxuus nag moom ñaareel bi kon bu njëkk bi mooy ndigal ñaareel bi ki la jox day doon ku am ndigalul joxe ko kon du ay ku sant Mbàkke wala ku sant Buso wala ku sant neneen nu ma tuddut rek waaye ki koy am ki koy joxe mooy ku am ndigalul joxe ko ak ku mën a doon ñetteel bi mooy nga di ko jàng suba ngoon maanaam nga di ko jàng ci waxtu yi daal ñett yooyu moom yu mënta ñàkk la jël ci ndigal ki la ko jox sañ la koo jox nga koy def ci waxtu yi yooyu moom charte yu ci mënta ñàkk la su xasee jàll jeex na sart yeneen yi ci topp nag yu ñuy yuy mottali wérdi bi la maanaam murit bi buy jël wi war na koo def bu mu ci mënut mu xool lam ci man mu def ko am na mel ni mbokk mu ne waxoon na ko sëñ Saalix ne ko wirdu bëgg naa koo jël waaye sart yi daal la moom moom laa mënta matal nee na sëñ bi muuñ ne ko da ngay jël wirdu bi ba noppi sart yi nga ci mën nga def ko yi nga ci mënul nga bàyyi ko ndax xam na ne bu demee dana mujj man yëpp insha allahu taala sart yooyu nag bi ci jiitu wala bokk yi ñu ciy lim mooy jàng alxuraan bis bu set kii wirdu maa xus bis bu set mu jàng alxuraan loolu muy jàng nag tënkuñu ko fenn du li comme li siiw ñu naan ñaari isib xaaj déedéet lu mu man rek la ki mën a jàng wenn xët baax na ki mën a jàng wenn saar donte isa jaa nasrullahi xeebuma isa jaa nasrullahi damay wax noonu rek ki mën a jàng juróomi isib baax na ku mën a jàng ñetti isib baax na ndax sëñ bi tudd na tuddoon na ko ci masaalik waaye liñ ci jublu daal mooy bis bu set na jàng alxuraan yàlla rek tax ñaareel bi mooy bëgg nañ képp ku koy def guddi gu jot mu la fukki rakka yoo xam ne ginnaaw gee la koy def teg ci safaak witar bu ko mënul na def li man ba ba muy mën fukk bu ma nee na ko def waaw loolu nag moom la ñuy wax ne ku mokkal alxuraan na ci jàng ñaari ba xaaj fukki rakka yooyu rakka mu ne mu jàng ci rubu fukk ñaari isiba xaaj yooyu nag moom nañ ko bindee ca mbind ma dafa xaw tënku boo ko seetlu day mel ne lu ñuy jàngale ci ñi waaye lool sax sëñ bi daa wax ne li ci gën moo ñu jàng ko ci julli kon ku mënul fukki yi na def li man rek bu ko mënut na julli gee te safaak witar ba ba mu koy man tey wér di rek beneen bi ci toppit mooy wird bi képp ku ko jëfandikoo sëñ bi nee na bokk na ci li li nga charte yi ñu lay teg maanaam yi nga war def mooy nga fexe sa kem kàttan ngay ànd ak nit ñu baax ñi bu ngeen xoolee yi may lim yëpp jullit ñëpp ko bokkale mooy jàng alxuraan bi su set jullit bi bokku ci tasawuf sax mënut a ñàkk jàng alxuraan dañ ko ko digal naafila guddi dañ ko digal ñëpp ànd ak nit ñu baax ñi dañ ko digal ñëpp ak boo dee góor ngay jullee ci mbooloo boo ko mënee def ci jàkka ji sax moo gën jigéen ñi bokkuñ ci loolu ñoom lolu momit, julit ñep lañ ko digal ndax julit mbolo mo ëpp tiyaba ak benen bi nga xamne ne na cee tegeet mooy mu xam lu lepp luy luy faratam manam amna na xamne julit bu ne mënu ko Ken defal bopam la julli yu ni mel ken mënu ko defal sa morom julit julit mourid bi nga xamne mo jël ma xoss dañ koy forcer ne ko demal jàngi loolu ba xam ko noko na jàng ko ci français jàng ko ci anglais jàng ko ci wolof noko ko xam ko rek lolu diiné ko digal julit kon gis ngeen ni yi yëpp yu wérdu bi di rek la ak nag wattandiku mbollem bakari te sax ci tuub jamono jum koy defit amna teggene yo xamne xam bëgg nañ mu diko def moy bo toge di wird maaxuus ginaaw bo yene jaamu yàlla ak jafe ndigal suñ Tuubaa ba nopi nga fas ci li suñ bi waxon moy nang ci fas suñu borom jëriñ la ci àdduna ak defal la ci jégué yàlla ak yunus sallam alayhi ak da nga ci jëriñoo te do ci loro bëgg nañ jamono jing koy def nga wax def li ñuy wax listimdad niyatul listimdad manam tebbulu ci sëriñ bi jàpp fas ci sa xol suñu borom tebbulu ci barkeb sëriñ bi ak nga tewlu istihdaru surati sheikh jàpp ni jëmmi sëñ bi ci bopam jotaay bi ma tok mi ngi tok ci sama wet kenn ku nek ci ñun rek buy wérd bu tewlo ne sëriñ baa ngi toog ci jotaay bi dana ko waggar dana bàyyi xel lolu ci kem kàttanam ci walu teggine waye mu ànd ak laab ak it bu koy def fek amun ngànt na toog bëgguñu koy wérd maa xuus di dox lu dul ne daa demoon ba am ngant deug deug sëñ bi da cey tek ne ku ko def ci lu dul ngànt dañ koy jappé suul adab manam ñàkk ñaawe ay teggine digënté ak sa borom ak digënté mak wérd wi kon kuy wird maaxuus dafa war a toog lu dul ne dafa am ngànt lu dul ne dafa am ngànt daf ni ki dafa war a jublu penku lu dul ne daa am ngànt nekk ci oto wala doolu muy daw bu boobaa fu mu jëm rek foofu ngay jàppee sa la jamono ji nga koy def it nga wattandiku lépp lu mën a fàbbi sa xel rawatina fi ñu toll ci téléphone yeeg télé yeeg yooyu jamono jooju nga wattandiku di wird di seetaan leneen ndax sa xel du fi ne ak nag bokk na ci teggin yi bëgg nañ képp ku koy defit bu ko mënee weer wu ne mu woor ñetti fan te xam ngeen loolu lu sax ci euh, gaañu baax ñu doon ko def ba sëñ bi sax wax na ci masaliku jinaan ne imaam malik saxaloon na ko wa kaana malikun imaamuna yudim fi kulli shahrin saw ma addi xarfi jim kon yooyu ay teggin la yoo xam ne bu ngeen ko gisee yi ma wax yépp ñett rek mooy yi ci munta ñàkk mooy jël gi ci ndigal ki koo jox sañ la koo jox ak nga di ko def ñetti waxtu ñaari yoon ci bis bi yi ci des yépp jullit bi na ci def kem kàttanam rek lu mënut mu yéene ko rek sëriñ bi it wax ci njariñ yu baree bari yoo xam ne doyan na ci njariñ rek ci jullit bi moom mu xam ci murit bi mu xam ne sëñ bee ko digle loolu doy na ci sëkk sëñ moo ci des juróom baax na juróom léegi doy na ci njariñ rek mu mu mu xam ne sëñ bee ko digle sëñ digle ne lii la lii ndigal lu sëñ bi la mu di ko def wirdu maaxuus mooy loo xam ne li amul sikki sàkk ku ñu fekk nga koy def bu ñu leen looy def mën nga ne ndigal sëñ Tuubaa lay def te amul sikki sàkk sëñ Bàkke bu so ne woon na ku koy def sag aju ci sëñ bi wér na ak yurud yool yu ñu ci wax sëñ bi wax na ne képp ku sax ci wird wi du texee di mukk te ci aw yiw lay nekk àdduna ak alaaxira te dana nekk mu'min muslim muhsin maanaam jullit bu mat dëgg jullit bu fas la mu war a fas jëf la mu war a jëf yéene ca la mu ci war a yéene xam ngeen xadisu Seydina Jibril laajoon na yónni sallam ñett yooyu la ko laajoon luy iman luy islaam luy ihsaan ci ñett yooyu la sëñ bi nee na loolu la koy maye wirdu maaxuus ku ko jàpp suñ borom dana ko defal loolu bokk na ci it bi wax ci ay njariñ ne képp ku ci sax dana dugg aljana te kenn du ko xisaab kenn du ko mbugal tey képp kuy jëfandikoo wirdu wi suñ borom dana la musal ci mbooleem lu ñuy ragal àdduna ak alaxira tekki na wala yaqrabuhu shaytaanul marid seytaane mi ñëpp di daw képp kuy jëfandikoo wirdu wi dalay daw yow ne nag doy na sëkk rek ci wirdu wi njariñ ne mbooleem lu ñuy wut ci turi yàlla yi suñ borom def na ko ci biir wirdu bi te am na lu ci nekk loo xam ne ku koy wut ci leneen it doo ko ci fekk tënk bi mooy ab murit lu muy sàkku ci yàlla ci turu yàlla ak ci kurus mu jaar ko ci maaxuus mooy li gën a gaaw nda jël maaxuus ba noppi leneen lu mu am nag mu dolli ko ci ndax sëñ bi newoon na ñaan jóge ci gaañu baax ñi may naa leen fu ko fekk na ngeen ci jël seen kéem kàttan waaye lu muy jëfandikoo ci lii maaxuus mu jiital ko ci mooy li ci gën sëñ bi ñaanal na bu baax ñi nga xam ne it ñooy jëfandikoo wirdu bi uktub liman axasa wirdi yaakaar yi musaamilan bihi sawaban laa yarim dégg nañ suñu bokk kuréel gi sànq ñu di ko jàng loolu se sëñ bi di ci ñaan suñu borom ne ko képp ku jël sama wirdu wi di ko jëfandikoo maa ngi lay ñaan nga defal ko yool boo xam du dog mukk te defal ko tawféex ak ñaan yu bari yu ci ñaan yoo xam ne fekk nañ ay leetar yu muy bégal njaboot gi di wax ne nangeen sant seen borom ci wirdu woowu ndax defal na ci leen defal na leen ci loo xam ne ku ngeen ko bokkalul rek dina leen ci ñee kon yooyu yëpp ay njariñ la yoo xam ne am na ci wirdu yi sëñ Basiru sax wax na ne booy wut lu baax ci walu wird yi fi yiñ fi xam ci biir lislaam jàppal wirdu serign wi ne wird yiñ fi xam mu ñetti tariixa ye neena bu ci nek mbóot ma ci benn baat la ne baat bobo suñ borom mbóot yooyu yeb da ko dajje defal ko sëñ bi ci bir wird bëgguma dugg ci li ci diko detaay mom ndax dana yaatu tuti waye ndax wirdu yooyu bu ci nek amna fuñ wax ne fa la mbóot ma ne neena suñ borom dajaleel na ko sëriñ bi yooyu yeb ci wirdam wi motax mu nan fa in axasta wirdahu axasta wirdal jamii la takhafu kapta soko jele rek xamal ne dara rëccu la loolu alawi ak ñoom ñëpp wax nañ ci kon ci tënk rek su ma doon wax yooyu ma wax yëpp ay njariñ la yoo xam ne sëriñ bi tuddal na ko ci wirde yu donte doy na ci njariñ rek ne sëñ bee ñu ko digal nañ ko def waaye doy doy bokk na ci njariñ yi war a tax bu ci sëñ bi digg woon diggiwutoon lii it ñu war koo jëli mooy tënk gim lay tënk ci nga nekk julli dëgg yooyu ma waxoon ci ay charte fi mu ne boo ci xool mu nekk charte boo ko wëlbatee day nekk njariñ maanaam yi mu ci ay charte charte kamaali bu ci nekk charte boo ko wëlbatee njariñ lay doon waxoon na ne nga sax ci di jàng alxuraan bis bu set jàng alxuraan bis bu set wird wi tënk la ci rek jar na jëli wird bi di julli julli mbooloo ci góor gu ne te xam ku ne xam ne ne julli mbooloo moo ëppee tuyaaba julli kenn nit ñaar fukki yoon ak nangam loolu njariñ la loo xam ne loolu rek waroon naa tax war naa tax ba ku ne gën a góor góorgóorlu ci jëli wird maaxuus naafila guddi gi taxoog nit ñu baax ñi xam lu say farata moytuy bàkkaar ak yu ni mel yooyu yëpp ay charte la waaye boo ko wëlbatee it maanaam li ñuy wax arbre problème ak arbre solution la maanaam bu melee nii boo wëlbatee mu lekk lii ay charte la waaye saa boo wëlbatee ci geneen wet gi da nga gis ne njariñ la loo xam ne day forcer jullit bi loo xam ne lislaam da ko koo digaloon laata wér de maaxuus di ñëw bëgg gu maa gën a guddal ndax sëñ ji li sax jàpp naa ne juróom mi di daf ma ko dolli rek waaye boo demee ëpp na ko yaakaar naa xamu ko sax daf ma ne juróom na woon rek waaye lu ci mën a xew euh, maa ngi jégalu bu baax xam naa li ma wax jaxasoo na euh, te leerut waaye tënk bi rek mooy suñ suñ tubaa mii radiyallahu anhu warda suñ borom defal nañu ci ay tawféex yu bari yoo xam ne wirdu Maxuus yi ci gën a màgg la bokk ci ci gën a rëy la bokk te euh, bi mu ci jotee rëyoon na lool ci moom santoon na ci suñ borom lool tasaare na ko ci njaboot gi ci anam yépp it mboolem ñu fi mas a jaar ci njaboot gi it góorgóorlu nañ ci ni nga xamee ne sëriñ bi mooloon na ko joxe ko li ko dalee Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadil muy wéy ba ci sëñ Muntaxa mii ku ci nekk ci ñoom rek gis nañ ni mu ci sonne woon ñu bari ci ñoom mool nañ ko ñii daan ko tasaaralu ñii daan ko bindalu sëñ Muntaxa ku miin ay jotaayam gis nga ne bu jullee ba noppi balaa walbatiku moom dana def maaxusam ba noppi doog walbatikook yow te boo ko laajee mbégte mi ngi ciy am rek da ngay xam ne euh, kon daal ci tënk rek mooy képp ku bëgg a buum nga ko lëkkaleeg sëriñ bi wirdu maaxus bokk na ci buum yi gën a dëgër yoo xam ne ku ci jàpp amul sikki sàkka ci ne nga ci buum gu dëgër gi nga ne ku ci jàpp sëñ bi dana la wamat ba yóbbu la fa muy yóbbu ñoñam ëllëg té moy fa nga xamné fa la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nek ak képp ku ko bëgg ak képp ku suñu borom bëgg bëgg nga texe tay ak ëllëg maa ngi jégalu bu baax lépp lu ci dëng rek lu ci dëng rek xamna ci man la ma ngi jégalu tay ñaan suñu borom yokku may sëriñ bi yokku ay tawféexam boole ñu ci ñi nga xamné sëriñ bi dina nangu seenu talib tay ak ëllëg fa tabarakallahu sunu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah wa alaykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Mamor kon niñ ko waxee woon rek su ko defee dañu daal di jébbal kàddu gi sëriñ Ahmadou waaye lu jiitu ñi ma waxoon ni nga xam ne bëgg nañoo jël werd wi euh, ñi ko bëgg a yeesalit xëy na ñoom du ñu priorité waaye ñi nga xam ne mësuñ koo jël te bëgg koo jël ku mel ne sëriñ Fallou seen mën na koo coordonné bu kenn ñëwee rek tàllal loxoom sëriñ Ahmadou bu ko defee mu joxe ko joxeek mbooloo soxna yi tamit ku ci bëgg a jël ku nekk rek mën ngaa yónnee sa kurus boo ko yónnee rek bu ñëwee ci sëñ Ahmadu dina bokk ci joxe yu nuy incha allah kon bala ñoo jébbal kàddu gi sëñ Ahmadu sëriñ Mamor ñu ngi lay sant ci exposé bu am solo bi tënku na te liñ soxla lépp ñëw na ñu mën koo tënk ci juróomi tomb yoo xam ne rek leeral nañu lan mooy wérdi ci tasawuf leeral na sëriñ bi fi mu jaar ak wérd yi ba ni mu jotee wérdu boppam leeral na it ni ñuy defee werd wi ak ñetti xeeti werd yi nga xam ne moo am te ñetti xeeti werd yooyu nag li ci sëñ Maam wax lu mat a bàyyi xel la mooy ne ñépp xam ne ñett yooyu bu ci waay jël baax na bu ci waay jël rek baax na yépp ci sëriñ bi la jógee yépp ay werd Maaxuus la leeral na it waxtu yi nga xam ne ci lañ ko war a def muy ginnaaw tàkkusaan ak ginnaaw suba yooyu mooy ay waxtoom bu fekkee dafa am nag wérdu woo ci dolli ci ñett yooyu ngir di ko barkeeloo loola nga yokkate kon mooy tisbaar ak timis ba gee naka noonu it leeral na ci sart yi muy lu am solo mooy li nga xam ne mooy gàllankoor ñu bari ñoo xam ne dañuy jàpp ne wérde wi kat mënuma koo jël ndax mënumaa matal charte yi kon nañ xam ne wérde wi li fi sëñ Mamar wax daanaka mooy wérde wi amut charte ndax lim fi wax ne da nga koy bàyyi xel looloo boo jëlut wérde sax daf laa war kon bu ci ben mourid ragal dara na xamne ne bu ko lubah lu bax dong la koy dolli te barkelo lokat yoy serigne sali Mbàkke wax rek doyna ci seuk lu yomb la kon nak jëlal rek li nga def li nga yi nga man ci charte yi nga def ko yi nga nga xamne ne nga xaar bam ñew rek inshallah naka nonu yit njariñ yi njariñ yi rek jaron na murid bu ne jël ko ndax lo xamne ne touba ko waxal bopam ne dina jariñ nangam dina jariñ nangam dina jariñ nangam te murid bu ne jàpp naa ne bu ñu la doon natt tey jii wax joo gën a gëm ci kaw suuf mooy waxi Serigne Touba te sëriñ Touba moo ñu dikk lépp lu baax ci werd wii ku koy jëfandikoo kon nag ñoo ngi ñaan Serigne Mamor sunu borom defal ko ci tawféex kon sëñ Ahmadu nu ñuy daal di def dañuy njëkkee jox gi waa kay kon léegi da ngay joxe te taxleex su ko defee sëñ saa ñaan waa taxleexal ci waaw. joxe gee jiitu waa joxe gee jiitu bismillah kon ñi bëgg a jël ñëpp rek nañ ko nañ bàyyi xel tàllal seeni loxo ñi nga xam ne dañoo bëgg a yeesalit mën nañ cee dugg kon insha allah bismillah kon ñu teewlu sëriñ baa ngi koy joxe mboolem ku ko bëgg a jël rek mën ngaa tàllal sa loxo bismillah na ñépp tàllal te teewlu ñi bëgg a yeesal tamit nañ ci fas rek yéene jee ci am solo bu ko fasee ya rek yeesal gi it ci la bokk te tey bis la boo ham. ne ginnaaw ci la ñuy ko joxe gi ko sëriñ bi njëkk jox dina rafet lool dina am barke lool ci yeesal gi ko defee képp koo xam ne it am nga ci ay laaj yoo xam ne yu la yitteel la boo jokkook sëriñ Fallou seen wala sëriñ Mouhamadou Sarr wala sëriñ Diop kenn ku ci nekk ci ñoom laaj boo am rek boo ko joxee dina ko eggale ci sëñ Mamor wala sëñ Ahmadou incha allah di ci jot sa tontu. amin ya rabbal alamin kon kep ko xamne rek sa kurus ñëw na nga sa te am yene jël werde wi jappal ne kon bis ni tay serigne ahmadou mbake joxna la werde wi kon lolu ñu xamé ko nonu kep ko xamne rek talalon nga say loxo ba yonne nga sa kurus te amone yene jël werde wi jappal ne bis ni tay juromi fan ci wéru kori sëriñ ahmadu jox la werde wi kon bis ni tay Naga ko saxal su ko defee kon Seigne ahma ban lañ ciy jël wala kenn Seigne ahmadu Seigne ahma ma kon xaat xaatim la ñuy jël nangam wala ku nekk waa kay kon kenn ku ci nekk rek ci ñetti werd yooyu sëñ Mamor doon wax bu la ci gën a jubu rek sa mbokkum taalibe moo gis rek mën na la koo laabire jox la nusxa bi jox la version bi nga di ko jëfandikoo waaw kay am na sax application boo xam ne bu jàppandi la application boo xam ne daayiratul abraar ci njiitul sëñ Manel def nañ ko muy application bu jàppandi boo xam ne boo demee ñetti xeeti werdu yooyu yëpp danga ko ko fekk incha allah kon nag ñu ñëpp bàyyi xel sëñ Ahmad sa silsila kon waa ko incha allah kon baax na kon su ko defee yéen ñëpp ngeen teewlu surtout yéen ñi jël wérde bi ngeen déglu tamit sëñ Ahmad mu wax leen fan la jëlee wérdam ba egg ci Cheikhul Khadim su ko defee yéen ngeen xam ne ko ni yéen version bi ngeen yorkat fii la jaar kenn ku ci nekk nag nga bàyyi xel li la sañ Maamoor waxoon ci waxtu yi ak ci sàmmoonte gi nga xam ne moo ci war kon ñu jox sëñ Axma mu taxaliix te leeral su ko defee ñëw soog a yëkkati jotaay bi. fukki minute bismillah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf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 Eh, am nañ yaakaar ne jataay bu bu buy bégloo ku baax ka la yàlla def mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ko taxawu di ñu ñu xam ci seen pas ak seen positif ak seenu bëgg sëriñ bi waaye sëñ Maam Mor mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi itam xëy na waxtu wi gàtt na waaye li mu jot a indi kenn ku ne ci noonu daal di nga ci xame solos wirdul Maxuus ak lu bari lo xamni ay leunt leunt da ak ay sew-sew yo xamni jot na koo leeral moom it yàlla na ko taxaw te daliko ko daliko katan mok kattan Isa ak sëñ Abdul Qadir, ak mbok yi nga xamni ño fi ne yeb ba liggey bi nga xamni ñing koy liggéeyal sëriñ bi ñu àggale ko fu kawé ñort lu ci joxe wird bi nak lolu mom mom xamna gañi dañ ma bëgg duggal rek <laughs> motax ñu joxe mako waaye xam naa maay kii fi gën a ñàkk yelloo xëy na joxe gi sama sunu kilifa yu baax yi ñi ñi ngi nii toog ñoom ñoom la ko seen alal la buñ ko sañee wax sëñ Mamour mi ak sëñ Issa ak ñun ñëpp ñoom it am nañ ci ay ijaasa yoo xam ne yu ñu xam lañ jël ko itam ci ay asaanit yu bare baree bari kon bu ma ko joxee dama ko joxe ci xëy na càllale yi ma ci am waaye ñoom it ci seen ndigal laa ko joxe ak seen eh, seen isnu incha allah ci laa ko joxe yaakaar naa du jar nag may wax fi ma ko jëleek <laughs> loolu yaakaar naa du ko jar wala <laughs> mu wax ci benn xam naa daal moom jël naa ko daal ci càllale yu leer <laughs> eh. mi ngoog eh, si sa waaw waaw mi ngoog waaw mi ngoog bi ngoog eh, ci la bokk ah eh, dañuy kii maanaam wird wi de moom moom moom wax dëgg yàlla man de sama sëriñ bu baax ba Cheikh Abdou Rahman moom ko njëkkoon a jox moom Cheikh Abdou Khoudous ko ko joxoon Cheikh Abdou Khoudous borom Daarul Moxte ko ko joxoon borom Daarul Moxte Sëñ Tuubaa ko ko jox teewul ma yeesal ko ci ay calala yu bare bari yoo xam ne mat na fanweeri calal ak nangam yàlla def na itam ijaasa yiñ ci amit bari na mat na juróomi ijaasa yoo xam ne ñett yi yu ñu bind la yi ci des kenn bind ko ijaasa yooyu itam calal yi mooy yi ñu xam rek ku mel ne Cheikh Mouhamad Miski man moom ma ci njëkk defal ijaasa bu ñu bind moom Sidi Ahmadou su moo ko joxoon Sëriñ Tuubaa jox ko ko ak wul diir sax itam jëlon nako ci seigne touba jox ko bi seigne Modou Mamoun ñang defal na ma ci ijaza momit seigne Modou Lim Diop daga na moko joxon ak seigne Fallu itam joxon nako seigne touba Tuubaa ko ak ñu mel non dal <laughs> ah. maa tuub lool nak li nak seigne mbacke na nang ko dag de nga ci ki bu ko buñ ko genn de nga mais <laughs> ko bu de wirdu nak li seigne bi doon waxtane mom lu am solo la moy wirdu wi wu mat japp la wu barkel la bu bari ay njariñ lay dem señ maamoor mor na junj na njariñ yi waye njariñ li mom kenn mënu ko euh, xeyma ndax lo xamni ci sunu borom la la bayiko xane al maaxudu min allah lañ wax xam nga jaar ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nga xane moy ngeen ci mindeef ak si ak si si ci ci ku bax ki nak si ahmadu bamba mi nga xane moy sangu ñëwoon itam ci weeru koor la wàcc weeru koor mooy ngën ji weer yi bisu laylatul xadr tam xam nga ci la wàcc nga xam ne mooy guddi gi gën ci ci guddi yi xayru min alfi shahrin yàlla def mbooleem xeeti awraad yeeg yépp dajawaat ci sëñ Basiir wax na ne awraad yi ci kaw suuf yépp seen secret leen benn bu ci ne secretam ci benn baat la cay ne baat yooyee nag la suñu borom dajaleel sëriñ bi ci maaxuus nga xam ne boo koy def mbooleem ñi ci kaw suuf ñëpp li ñuy def yaa ngi koy def di def ñoom luñ defut fa jamaal kulla sëñ bi wax na ko léegi wa zaada wartaqa bi muxkamil kitaabi fa in axasta wirdahu axasta wirdal jamii fi mu ne loolu borom xam yi léeg-léeg dañ ko ci seetlu mooy ku mel ne gis nañ mboolem awraad yi ci kaw suuf rek am yoo xam ne du neexal leeral waaye am na awraad yu ci ne wirdu wu ci ne la fa secret ba ne boo ñëwee ci mawxus da nga ko ci fekk moo tax nga gis lépp nekk ci mel ne salaatul faatixi gis ngeen ni mu amee solo ak ni ko sunu mbokki tiijaan yi fonke ak secret yi ci ne yépp da nga koy fekk ci wirdul mawxus lu mel ne inna waliya allahu allazi nazala alkitaaba wa huwa yatawalla saalihiina itam nga xam ne boo demoon ci al wird as tariqa saadaliya dañ ko fonk nga xam ne mën nañ ne mooy seen secret daanaka gis nga boo ñëwee da nga ko fekk ci wird maaxuus lu mel ne xasbala ni ko wirdu qaadir yi fonke nga xam ne mën nañ ne ñoom daanaka mooy seen secret da nga ko ci fekk noonu yi la dajalee mboolem asraar ak anwaar yi awraar yi ci kaw suuf yëpp nga xamni kiko def kiko def ñaar yoon fi ne gën ja néew dana def juróomi téméril salatu al nabi ci bis bi bu dee kaamil bi mom kiko def ñaar yoon xawna def ismul mufrad muy allah def nako ñetti junni yoon danaka ci ci ci bis bi ko tek nak yenen turu yàlla ci ne ay hu rahmaan ak rahim ak xayu nga xam mom moko fess nga xam ne fi ne bu dee yenn tarixa yi ni ñuy tërbiyaa ab taalibe ci tur yooyu lay doon laa ilaha illa allah ak allahu ak ak hu ak xay ak qayyum ak xaq ak yi ni demee yooyu yëpp nag dafa dajewaat ci biir maaxoos nga xam ne bu dee ci yenn tarixa yi dafa am yoon wu ñuy topp ngir jéggi juróom-ñaar bakkan yi ngir jéggi sikki bakkan yi ak ngir jóge ci bakkan yi dem ci beneen bakkan yooyu nag nit yàlla yi daje nañ ci ne daanaka jéggi maanaam dañ koy wax juróom-ñaari bakkan rek waaye xaw nañoo mën xaw nañu mën a tënk ci ñett nafsul amaara bi su lawaama ak al mulhama mulhama moo defaat ay maqaamaat nga xam ne raadiya ci dugg ak mardiya ak kaamila ñett yooyu yëpp nag istigfaar moom mbooleem li li liy jéggi li tax nga mën a jéggi an nafsul amaara bi su mi ngi ci istigfaar lii tax nga mën a jéggi al lawaama mi ngi ci asalaatu ala nabi tax nga mën a jéggi al al al mulhama mi ngi ci haylala bi te yooyu yëpp gis nga da koy fekkaat ci biir alwadul maaxoos la sëñ Basiir waxoon ne li annahu li kulli fii kilimatin biha hadakal barru kon wirdul maaxoos moom noonu la demee te ki koy def day dëkkee xiyaamu leyli fi ne sëñ Maamadu wax na ne faw nga julli nafil yi ñuy def ci koor gi kii def maaxuus moom da koy continuer fukki rakka ak sabaak wetar muy fukk ak ñett boo manee alquran di ko ca tari boo ko mënul suuratul ixlaas ñett yoon mu da ngay dëkk itam di di woor bëccë gi ndax da nga woor ñetti fan ci weer wu ne loolu ci charte yi la bokk nga xam ne benn bu ne buñ ko fulee muy fukk xam nga ne loolu fanweeri fan moo am nga weer nga xam da ngay mel ne kon ku dëkke woor bëccë gi ak dëkke xiyaamu leen maanaam wird wi loolu ci ci wird wi rek lañ daanaka lañ ko xam ak rawatina itam faw nga xam say farata faw nga jàng dara lu maanaam wird wirdu maaxuus mooy wird woo xam ne ak jaahil du ko def ki koy def lu bon bon faw mu am dara ci lu xam ci diineem kabaayir yi itam da koy bàyyi nga xam ne bakkaar yi ndaw yi lañuy ñuy wax waaye kabaayir yi moom daa bokk sarte yi nga bàyyi ko daa bokk ci itam fi mu ne maanaam ñi ngay àndal loolu ci surut yi la bokk mooy di ànd ak ahli taatillaahi moytu ahli maasiyatillaahi nga xam ne ñiy def ay moyu yàlla yu fës ñooñu doo mën a def ak ñoom xarit man ngaa maslaa ak ñoom nag waaye ñi ngay dugganteel dëgg-dëgg day nekk ñoo xam ne dañuy góorgóorlu ci lu baax loolu nag maanaam mooy tax lii ci sëñ bi moom doo am sikk ci ne la mu waxoon ne ku ko jël faw nga am imaan bu leer naññ ak islaam bu leer nañ ak ihsaan bu leer nañ sëñ bi leen waxtu bi jeex na kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah waaw hmm? kay jërëjëf sëriñ ahmadu am na solo lool euh, su ko defee kon euh, mel na ne jotaay bi kon lii lañ ci tënkoon ñi nga xam ne jot nañoo jël wérdu Maaxuus bi kon ñoom mën nañoo daal di tàmbale léegi buñ jullee timis ba noppi ndax buñ sukkandikoo ci li sëñ Màmmoor am di wax léegi mel na ne waxtu wi dina dem ba ginnaaw timis kon euh, ñoom lañ daal di tàmbale beneen bi mooy jox gim leen ko joxit xëy na kurus yi ñu doon jot jokkalante ci soxna yi kurus yi day jaaruwaay rek waaye nañ xam ne jëmm yi lañ ko jox kon xëy na yàlla bu kurus yi réer sax waaye ko ci gisatul sa kurus bul jàpp ne yëf ya daa nekkoon ci kurus ga waaye ci sa jëmm ji la nekk kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax sëñ Mor Sourang damaa xamut li nga laaj de loo bind waa xam nga li sëñ Maam Mor waxoon léegi dama koy bañ a joxaat kàddu gi muy guddal waaye li mu waxoon léegi rek mooy wérdi wi moom ki ko war a joxe day doon koo xam ne am na izna am na am na autorisation pour joxe ko mooy li sëñ Ahma doon wax léegi diw ijaazaal na ma diw ijaazaal na ma loolu day wane ne sëñ Ahma kon am na autorisation pour joxe werd wi léegi nag yow ki nga jébbalu bu fekkee amul autorisation te xëy na nga bëgg koo jël werdu yu moom nañ xam ne ku am autorisation moo koy joxe asalaamaaleykum kon xanaa <laughs> sëñ Issa kon waaw sëñ Issa nga daal di ñaan rek waaw kay te ah te nangam mu jeex ah daa mel ne laaj yi dafa bari lool lool lool lool ay ca ñaari laaj kon. Wow. sëñ Ahma mom day laaj lan moy bàkkaar yu mag yi nga wara a Benen laaj mu jeex waaye da ngay jël benn keneen jël benn li yi ci dess yi da ngeen di jokk ak sëñ Fallou Sen rek waaw waaw léegi yoyu lu bare bare bare la lo xamne ne duggé ci YouTube bi sëñ Issa mi am na leeral yu mu ci defoon ci mun la yenu sudur la defe naa mun na weru sudur téere boo xam ne sañ Tuubaa ko bind leeral ci loolu soo ca demee boo jokkoo ak sëñ Cheikh Suur mi mën na la ko wan mu gaaw waxal rek waxal rek te waxal foofu waxal foofu mu gaaw rek bismillah ah waaw <laughs> cey murid yi waxtu wi daa jege de buñ noddee rek dañuy jóg moom Waalaikumsalam. Ah, Bismillah. Wah. Musabahatul Ashr. musabahat nga doon doxal mhm. aha aha Asa suñu am dafa bëgg dafa bëgg dafa bëgg a transhumer léegi xoolal wér de maaxuus moom sëñ ahmabat fi mu toll nii bi mu koy joxe néewut jël leen wenn dana wér de maaxuus la leen jox woo ci jël baax na boo dem bam mu gis ne bële kat war nga caa egg su boobaa mën ngaa jëfandikoo boobu yépp maaxuus la mën nga koo booleeg asra waaye li am solo mooy dia dee ko def ginnaaw suba ak ginnaaw rek amul benn problème jaajëf loolu sëñ Isaa koy maan waaw loolu sëñ Isaa sëñ Isaa ko sëñ Isaa koy xam na sikk sàkk moom bu la jotee ci werdu wi bu la jotee ci werdu wi dangay ngay jàpp ca la gën a wóor bu fekkente ne da nga sik sàkk ne misaal astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum lim bi nangam la li ma ko def man matut manqué na li la wóor ne mat na moom ca loolu ngay tàmbalee motti la nga jàpp ne moo des saa yoo jàppee nag da ngaa def lu ëpp maanaam juróom-ñaar fukki yoon la léegi yow rëccër nga ba def nga ko lu ëpp juróom-ñaar fukk la ëpp da nga koy jàppe jaamu yàlla génn wérdu wi daal di cee teg la ca teg nag continué wooyee mu jeex noonu rek lay demee bu dee li bëgg a wax leer na. ndeysaan est-ce que ah boobu sëñ Isaa sëñ Isaa koy man xam naa nag mbirum wird moom Cheikh Mouhamad Ahmad Misk mi sëñ Ahmad di tudd léegi di borom xam-xam ni tugg yàlla daa am lu am solo lu mu ci waxoon lu mat a bàyyi xel mooy mbirum wérd du du mbirum xalaat maanaam lu ci nekk looloo tax sax ñu koy jëlee ci càllalaak ci ay sëriñ lu ci ne ñu la ko tënk la rek noonu koy dafa yam ci ñun Sëñ Tuubaa buñ ko buñ ko waxee buñ ko waxul suñ jëf yépp addiyee la ci moom ci force loolu bu ñu ko bëggoon tamit noonu lay demee ndax moo yegg si la ci ñun lu baax maanaam lépp luñ def ci lu baax suñu borom da ko ci jox yoolam moom buñ ne woon bu mu ci jot du te da ci jot mënuñ ci dara léegi nag gannaaw bi sëñ bii tënk nag euh, yéene ji niñ koy defee daa wax ne da ci yéene lii sëñ Mamour wax léegi jariñu àddina ak àllaaxira jariñu lant ak lor jege sa borom jege yonent bi alayhi salaam jege ku lay jariñ sa du la lor suñ Tuubaa lu ñu tànnal moo moo gën nañ nañ am ci loolu mu wax rek. léegi kon bu fekkee laaj yi jeexut buñ julli jee ñu ñëwaat def 15 minutes en attendant xéewal yi noppi te daa mel ne xam naa Sëriñ Fallou Sène moom mu ngi soññee ci mburu mi waaye faw ñu dem ñëwaat jotaay bi moom daa mel ne li murid di bëgga laaj lépp xaju fi. <laughs> te xamna naa bu ñu du tax du tax mu jeex sax waye ñu jël li ta ñak rek li ta ñak rek jël ci jëlat ci ñaar ba ñett rek 15 minutes exactement lool la kon ku am laaj rek bayyi ko xel nga jox seigne fallu sen ak sëriñ Diop wa dafa melni ñom dajale nañ ko sax kon kon buñ jullee rek buñ jullee rek ñu ñëwaat def 15 minutes inshallah allah.

ki nga xamne mo fi nekkal serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaka muy jëwrin alaaji Mbàkke yu fay mi nga xamne ne fi teewal serigne Touba serigne Muntaka ci barab bi di ndakaaroog wër waye di jëwri barab bi ñu nekk lu teewaayam sant ko it ci jappalam jappandalam ci barab bi ak encouragement yo xamne def na ko ci lii ñuy def àgg na ba ci wax ne bis bii moom nañ ko jàppee nii juróomi fani gu jot nañ ñëw fàttali tomb bi ndax nee na loo xam ne murit yépp ko war a def la sëñ Tuubaa murit yépp la ko digal kon nag ni ñuy fàttalikoo bis yu ne bu bis bii jotee nañuy dajale dajaloo fii di fàttali wérde wi di ci xiir nit ñi di ci soññ murid yi ñu di ko jël kon ñu ngi rafetlu bu baax teewaayam xëy na balaa dem dina ci joxe ay kàddu incha allah kàdduy soññee ndax kàdduy soññee ci sunu baayub taalibe la waaye kàdduy soññee ci xam gu mu xam lii ñuy wax te du ñàkk am na ci expérience boo xam ne it mën na koo partager ak ñun mu jariñ ñu ci sunu pas-pas jariñ ñu ci sunu diggante ak sëriñ bi kon sëñ Diop bu fekkee laaj yi jàppandi na rek sëñ maam Mor mel na ne armé wana ba ba pare fi toll nii loo ko laaj ma tontu waaw kay bismillah waaw sëñ Issa de comme defagut dara moom mën naa tontu nag fi mu ne waaw dëgg yàlla waxagut. sëñ Isaa kon tontu laaj yépp kii moom dafa laaj ne ndax ku jël wérd ba yàgg nga bàyyi ko ndax xat-xati jamono bàyyi ko lu tolloog semaine wala weer wala lu yàgg daal jekk-jekk rek bëgg koo tàmbaliwaat nan lay def ndax su boobaa da koy jëlaat jël gu yees walla déet jërëjëf di tàmbalee sant jëwdin alaaji mbakki yu ci teewaayam noonu nga ko waxee léegi bi nga xamee ne bokk yi am nañ yéene ji ñu waxtaan ceeg moom ci biir kor ga rafetlu ko lool la def ànd ceeg ca warte lool sax boole ci ndeysaan boobu yeggoon nañ sax ne ma lii de moom daa am solo soxna dañ ko war a tasaare ci rajo yeeg télé bi yépp ba nit ñëpp yëg ko ba moo taxit ci ndigalam télévision Touba TV Euh, biñ ci jokkoo ak ñoom ñoom itam daal nañu jàppandal lépp ba ñu ngi ko doon def en direct lépp bokk ci lii tasaare. Euh, wirdu Maxuus koo xam ne daf koo jël dem ba jamono xaj na ay tànk-tànk jamono walla lu mën a doon tax mu bàyyi ko ab diir boo xam ne defu ko dañuy xool ba xam ndax jan yéene la am bi mu koy baax bu dee ne yéene jëm yéene moom mooy ne yéene wu ko bàyyi bàyyi gu wéy. waye xajna tank tank jamono ko japp wala xajna ñak fa sefu xaw a dugg tuuti boobaa dañuy wax ne bëgg nañ bu koy wat bu ko mëna yeslu mu mu wat ko do ko tàmbali waye yeslu gi du lu munta ñak bu ko nexé rek continue wat bu ko sobé ndax dogut bu dé ko xamna ne daf ko bayyi dir bo xamne ne bam koy bax yene bàyyi ko définitif la amone dafo yene won mom yan ci la musal loolu bàyyi wirdu wi koku mom bu don ben bis dong itam faawu da koy wat ndax yéeneem euh, ndigalam dogna faawu day demat amaat ndigal lu yes doog ko meuna jefandiko mu wer jërëjëf leer laaj bi ci top melna ne seigne mam Mor tonto nako ko de jàpp naa ne yooyu jërut a soxna su am gant ndax dina meuna wer dem déet seigne mam Mor wax na ci neena bu ko nexe man nako baña def bu ko nexe man na def. daa mel ne loolu la ci ki yoon xëy na si isaa dina ci ñëwaat waaye question bi topp mooy ndax nit mën naa am ndigalul werd maanaam am na ndigalul werd li tey toog diir bu yàgg masalan toog fii ba weer wee di ñëw mu soog koo tàmbale ba tey dañuy wax ne bu fekkee ne nit ki xas na am ndigalul jëfe ko dañuy bëgg waxtu wa njëkk ñëw rek na ko ci tàmbali mooy lu mel ne loolu nga doon wax léegi bokk yi ko si ma du joxoon léegi buñ ko mënee def balaa gee moo gën a baax buñ ko mënut tam bu gannaaw gewee balaa njël ñu def ko ndax waxtu wu njëkk ñëw nga mën ko ca boo ko ci mënee tàmbali def ko ci mooy li gën ndax bu fekkee ne jox nañ la ko te loolu danay dal ñu bari ñu jox la ko nga toog lu yàgg jëfandikoo woo ko ba ci yàgg nga bëgg ko jëfandikoo ak la nga dégg ko ne la kilifa sàngam joxoon na ma ko nangami yooyu ba ci nga xëy rek bëgg a tàmbali déedéet boobaa dañuy bëgg nga dem yeesluwaat ko doo ko tàmbali ndax day mel ndigal li ndigal li day mel ne boobaa boo ko jëfandikoo loolu day mel day màggat ci waxin kon loolu mooy tënk bi waa jërëjëf sëñ Seydina Issa laaj bi ci topp mu ne dañuy wax ne yoonu murit dafa ëmb mbooleem lislaam muy laaj maanaam yoonu murit maanaam nan la nan la biir tarixa yépp nekkee ci biir yoonu murit xam naa mooy loolu suñ maamoor doon wax fa in sa wirdahu axas sa ba mu jeex loolu nag xam laaj bu am solo la waaye tontu moom waxtaan la waxtaanu boppam lay laaj insha allahu taala euh, bu ñu ko yàlla fekkee loo teg jàmm ba beneen yoon danañ jël tom boobu wala bu ko jege ngir ndax daa bari lu ci lu ci mat a leeral dañ koy faral di wax nii rek te duñ ci xóotal bu baax waaye boobaa incha allahu taala des na ko yaatal ba mu leer bañ xam ni nga xamee ne sëriñ bi ñu la waxee ne suñu borom da ko cee dajaleel mbooti tarixa ya jiitu woon nan la demee loolu wala boog liñ ci mën a xam nuñ ko mën a xamlee ba mu leer xam naa euh, bu ma juumut sëñ du Ndiaye moo laaj laaj boobu dafa mel doon na ma ko wax léegi waaye buñ génneeg jàmm ba am waxtu danañ ci mën a toog maak moom incha allahu taala kii moom day laaj nee na dafa am baat yoo xam ne dañ koo junj ci eh, mujj werd wa mooy boo àggee ci salaatu ala nabi nga mujj kajoor ak bawal ak nangam nangam yooyu nu mu demee. loolu mooy baat yi ca mujj ga ay tur yàlla la. yaa karimu yaa jamilu yaa waduud yaa rabbal alamin yaa baaqi yaa wali yaa latif wala ci beneen version ba yaa badiu yaa wahaabu boo demee Cheikh Sidi Ahmad mismahu ci téeréem bi al maqoolaat fi lxaadisaat daf koo tudde ar ramzul xafi maanaam ab ab day mel ne daal ab code la léegi loolu nag euh, baat yi ni mu ñëwee mag ñi bu ñu ko daan bind dañuy xonqal baat yu araf yu njëkk yi yaa karimu dañuy ko xonqal kaaf gi yaa lu ñu xonqal jiim gi yaa wadudu waaw gi yaa rabbal alamin raa gi boo ko boolee muy kajoor badiu wahaabu latif boo ko boolee muy bawal كريم نافع نافع الف يا احد يا رب العالمين بوكو بولو مي غنار لغي نك آه، شيخ سيدي احمد مسمو امنا لوم تي واخ تي تيرم با واي ني باي خيل وخوت ني لول لاي فيري دي دا فا اندي اب خوما ما كمال تودي اب اب, أب تاويل دال واو ني من نا ام بوكون نا تيا سيرين بي سي جامونو جوجو مو jaare ci baati tuur yàlla yooyu ñaanaale sunu borom mu génne réew yooyu mu tudd muy kajoor bawal gànnaar nga xam ne ci jamono yooyu ñi ngi ci biir mbuumu njaamu tubaab yi sunu borom génne leen ci mbuumu njaam googu nga xam ne day mel ne ci déggin woowu sëriñ bi moo ñaan euh, indépendance su gox yooyu ak réew yooyu waaye ñu bàyyi lu xel firi waxut ne loolu lay firi daf ko taawil rek ok ok ab ab tënk ab kii la daal ab euh, iftiraat la waa am na albilaat moo ca dolliku kajoor gànnaar kajoor bawal gànnaar albilaat mu yaa ahadu yaa latif yaa baqi yaa latif yaa ahadu yaa daim boo demee ca kaamil ba amul kajoor bawal gànnaar albilaat rek la am albilaat nag mooy réew yëpp <laughs> day tënk yëpp ah. jërëjëf laaj bi ci toom topp mu ne moom tur yi lay laaj xaatim xawma xaatam euh, xafiif kaamil ndax turi yi da cee am solo ndax tur yi day jeexeetal ci werd yi wala déet ndax buñ ne bii daa woyof bii dafa mat bii moo gën a mat loolu lu ci doon man de xam nga damay tàmbalee ci loolu ma sama sëriñ boobu waxoon Cheikh Sidi Cheikh Mouhamadou Ahmad Misk ne mbirum werd du mbirum xalaat loolu man dama koy appliquer ci lépp moo tax tur yi man turi duma ko firi tur yi nag leeraloon nañ ko ci waneen waxtaan ne xafiif Sëñ Tuubaa moo ko tudde xafiif loolu ku dellu ci waxtaan wi ñu fi defoon ca weer yee ca gannaaw leer na ca nañ ak preuve yi kaamil Sëñ Tuubaa moo ko tudde kaamil xaatim waxi nopp mu ñëpp xam nañ ko waaye nag lan lay firi xafiif moom bu dee ci waxi arab rek day firi lu woyof kaamil di firi lu mat xaatim mën naa firi lu lu luy tëj mën naa firi am na yeneen i maanaa xaatim dana bari maanaa yu firi yu bari man nag gannaaw gisuma lu leer fu ko sëriñ bi firee te jàpp naa ne boo ko firee nii man naa am contradiction ndax bi sëñ bi njëkk a jot version bi mu njëkk jot moom la tudde xafiif ba ca tege mu tudde ko kaamil ba ca tege mu tudde ko xaatim man damay jàpp ne bu doon ne day firi ne xafiif mooy bu woyof kaamil mooy bu mat day mel na kon dañ ciy war a dégge ne sëriñ bi kon buy joxe gannaaw bu kaamil ñëwee dootu joxati kenn xafiif kaamil dong lañuy jël tey kon day mel ne bu kaamil xasee ñëw xaatim dootu war a mën a ñëwati te sëñ ba sëñ Mat Lamin Jóob Dagana wax na ci Ixnaawul Adim ne li ëpp ci taalibe yi xafiif lañ doon jëfandikoo danaa koy wax kaamil day mel ne ak tasaaroom jàpp naa ne jamonoy sëñ Abdu Lahat la tàmbalee tasaaroo sëñ Madu Maamun Ñang rahmatullahi alayhi bi may jox du maaxuus moo ma nett booba kaamil la ma ko joxe woon man nett yooyu yëpp bu ci amee te sëñ bi gisuma fu mu ko fi jox daf ne ma saqiil saqiil mbiri Sëriñ Tuubaa la yëpp ci boromam la ko jële mu jaar ci yonent bi alayhi salaatu salaam digle yëpp la ko jële mu jaar ci yonent bi alayhi ko euh, benn woyofu ci li ci am daal mooy li sëñ Ahmad waxoon wala sëñ Mamor am na ko ci waxoon taalibe bu ne buy jël day xool bi gën a méngoog moom xaj na moom surtout ci waxtoom ak nangam mu jël booba ndax ku nekkit am na bu gën a jubu waaye du tax ñu ne bii moo gën bii wala bii moo yées bii wala yooyu jërëjëf sëñ Ahmad Isaa waaw ñaar rek mu jeex ñaar a des laaj bi ci topp kii dafa wax ne sëriñam dina koy jox ay werd ak zikkar ak xasida ak nangam nangam waaye mosu koo jox maaxuus muy laaj ndax sañ naa dem ci keneen ku ko beneen sëriñ mu jox ko werd wala sëriñam rek rek moo ko war a jox. laaj boobu day mel ni suñ maam moo taxawoon na ci waxe woon ci noo xam ne sax man bu doon man duma ko sañ gannaaw ubbi na bunt bi alhamdulilah ndax nee na ki la koy jox moom ajuwut muy doon ko sant Mbàkke wala kuy sant Buso li ci am solo rek sart bi Sëriñ Tuubaa teg te mooy ki la koy jox na am ndigalul joxe ko ak jëfe ko mu jaar ca war a jaar jokk ba yegg ci mag bi loolu bu xasee am kooku sañ koo jox bu amut nag ak ku mën a doon sañu la ko jox la ca am solo mooy bu dee ab sëriñam jox ko ko am na sañ-sañu bu ko soobee dem laaji ko keneen koo xam ne. ndax ku ne xam ne sëriñ bi ni mu demee ak weeru koor. ba nga xam ni ñun taalibe Serigne Touba xam naa jullit yépp sax ñoo war a gën a sàmmook weer wi ak ndigal yi waaye rawatina nag ñi nga xam ni seeni mbir dafa aju ci sëriñ bi e ñuy sant nag mbooleem ñi nga xam ni ñépp jàppoon nañu ci weeru koor wi ci maanaam jàngale yi nga xam ni amoon na fi njàng yi nga xam ni am na fi ak tamit xeeñtu diine ji nga xam ni def nañ ko fi ci weer wi yëpp te sëñ Issa jiite woon ko ci ndigalu imaam yi nga xam ni ñoo ne ci barab bi mu mel ni <clears throat> tey jii li nga xam ni moom la ñuy waxtaane ci mbiru wérdu wi nga xam ni mooy maaxuus day mel ni day tëj jotaay yi nga xam ne amoon na fii ci barab bi mu daldi di xaw a mel ni dafa xaw a tombeek linga nga xam ni dañuy jàpp ni dañu koy commémorer li ñuy wax commémorer mooy fàttali li nga xam ni sëriñ bi jotoon na ko muy xéewal joo xam ni ju ju rëy rëy rëy rëy rëy rëy jóge ci suñu borom subhaanahu wa taala jaarale ko ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñu indil ko sëriñ bi mu jaare ci ndawam lu tedd loolu ñu koy wax Jibril mu indil ko sëriñ bi muy ndam loo xam ni ndam lu rëy rëy rëy rëy la ci sëriñ bi ak ñi nga xam ne dañuy jabootuk sëriñ bi muy loo xam ni lu am solo la am solo gi mu am solo nag <clears throat> màndarga yu bari da cee feeñ ci période bi ñu ko ko joxe te it fi ñu ko ko joxe mu nekk ci tukki nekk ci jihaat mu wane ni kon moom la mu jóge ci réew mi dem bitim réew mel na ni kon am na lu mu doon jëli kon mënoon mën a jàpp ni bu yemoon ci lii rekk mu doy sëkk mu wone ni kon moom la nga xam ni moom moo ko taxoon a jóg eh, mat na mu ñëw it nag mu nekk ab sërice boo xam ni sërice bu rëy rëy rëy rëy la xam naa ni bu dul woon gàttaay bi am nañ ci ay seere yu bari yoo xam ni waroon nañ ko cee mën a wax ndax <clears throat> day loo xam ne ñun dafa nekk li tubaab di wax propriété muy suñu moomeel moomeel gi nag mooy taalibe yi nga xam ni dañoo jokk ci sëriñ bi nga xam ni dañoo jébbalu jël seen bopp dénk ko sëriñ bi comme ni ñu koy waxee ni booy booy jébbalu ni ngay waxe mu bokk ci li nga xam ne lii bokk na ci suñu identité ci yoonu murit muy wér de Maaxoos bi ndax ñu bari dañuy jàpp rek sax ni murit yi amuñu wérd te loolu day loo xam ni xëy na ñàkk tasaare waxtaan wi ñu ci bari dinañ dinañu ci am xëy na ak réer te wérd wi nekk na loo xam ni am na solo am solo goo xam ni daanaka foo ko takk weesu na ko loolu nag man maa ngi ko jële ci ko xamni ki danaka dara doxul digeunte mak serigne bi muy serigne Saaliwu mbacke ndax man momako joxal bopam ak ye waxtan ya ca teggu yu yaato yaato yaati ba nga xamni ni ngeen ko defe ni nek na lo xamni xeyna sax yeex ge ñew waye bo len di ci jamono bi ñuy ubbi barab bi ñu ay tem yu bari ñu Don développé ci manam ubité gi am ci bo xamni bi dañ doon waxtaan mu jëm ci wérdu wi ndekete booba serigne bi ku bax ki cheikh mohamadul muntaha ma nga ci koloban di deglu ba mo wotel bopam ñu wax ci télé bi mu wax en direct ni joxe na ndigal ñu siwol ko joxe na ndigal tamit ñu diko ko joxe ba kérok ci barab bi sax la joxe ndigal lu mel non muy wérdu wi werd wi nag day loo xam ni lii ma déggee léegi ci question yi xam naa ni sax am na yu ko jiitu sëriñ Issa doon ko tontu maanaam ñu ciy laaj ay laaj yoo xam ne njariñ yeeg ak yeneen i yeneen i yeneen i mbóot yu nekk ci biir ci tur yi nga xam ni daa ëmb werd wi loola moom am na lu ko du loo xam ne nit a la koy wax waaye day am loo xam ne lii la koy indi ci yow ab taqoo rek lay doon ndaxte bu fekkee ni taqoo nga ak moom moom am na mbiri boppam yoo xam ni moo la koy xamalale boppam ndaxte e, day loo xam ne lu am solo la ndaxte boo gisee turux yi nga xam ni am nañu te bari nañu ci àddina bi ku ci nekk am nga loo xam ni lu demee noonu luñ lay màndargaale li ci gën a seew siiw ci réew mi fii muy werdu tijaan ak werdu xaadir njéem sax am na yeneen yoo xam ni sax ay bennet bennet ci muritani ak ci dëkku lu xaw a mel ni Mali ak yu demee noonu dinañ am ay werdi yeneen yu ñuy yu ñuy faral di wérd yu demee noonu mu mel ni nag bii nga xam ne nag mooy maaxuus ki nga xam ne ci gémmiñam laa ko déggee moma wax goudi lol gu màgget ci boru 3h du matin 2h laaj ma kurus gi ma joxone bi ma koy jox ni man yaa ak moma maniko wa ko ak mom de indi ko mo won le fi ci werdi di yépp kon sank bi ngay wax ni dafa ëmb werdi di yépp wér di yépp ci ne ndax man Serigne saliw moma ko wax moma ko nettali it ci baxé tamit lu baree bare nga xamni du du mu ne su ko waxtaane ndax xam nga man dama gaaw a dem sama yoon te te kon jotaay bi day daal di compliqué <laughs> ba nga xam ne bii <clears throat> lii moom day initiative boo xam ne bii warul la yem rek ñu koy commémorer at mu ne bu ñu bu ñu bu ñu naanee ndox ba mu am juróomi fan tombeek li nga xam ni moom la ñuy tuddee anniversaire dafa war a am loo xam ni jumaa ji day université day dara te taalibe yi bëgg nañu xam bëgg nañu défaru dañu nekk en quête du savoir te it ba sét dañu ci tumuranké te lu mel nii yéen di ay bi def ngeen xamlu ba xam

julli waxtu yu juróom rekk tuuti na ci war nañ koy remplir ci programme yoo xam ni ku fi jóge ku ne di ci mën a jële loo xam ni ak ci di fi dund loo xam ne lii day doon njariñ ba nga xam ni euh, defe naa sëñ Isaa xëy na mu ngi ci xelam ak ñoom imaam mais jaadu na barab bu mel nii te am commodité yépp ñuy faral di dajaloo di waxtaan ci lu mel nii ndaxte nit lu mu bëgg jël lu toll ni jëmmam tëmbal ko ci te laaju ci dara lu bëgg cee nekk bëgg cee bokk war naa xam loolu na mu demee lu mu doon te sëriñ bi li ñu war a jàng ci moom dafa bari nekkul rek ci wérdu wi ndaxte sëriñ bi defar doomu aadama ko tax a jóg te instrument yi defar doomu aadama yépp bu ci ne sëriñ bi indi na ko te mu ngi fi moo xam ab téere bu mu bind la moo xam ay mag yu mu defar moo xam ay waxtaan yoo xam ni dañ koo bind ci ginnaawam nga xam ni ay kilifa yu bokk ci yoon wi ñoo ko bind yooyu yëpp a ngi fi te yooyu yëpp dara taxu ko jóg lu dul defar nit ki nga xam ni kii dafa bokk ci société bi te bu defaroo lépp defaroo rawatina nag ki nga xam ni kii mooy taalibe sëriñ Touba te bokk ci yoon wi loolu daal nekk na loo xam ni xam naa ni yéen ñi nga xam ni yéen boroom xam-xam yi war ngeen ak ñoom imam Sarr def un collectif boo xam ne bii lu mel nii di ci yee nit ñi am ngeen instrument ay rajo ngi fi yoo xam ni sëriñ bee ko moom Touba TV sëriñ bee ko moom moom moom rajo bi te ni mu moomee fii la moom yeneen rajo yépp ndaxte lu mel diko di ko di ko xamal taalibe yi keneen ku am lu mu ci xamit lu néew ak lu lu lu bari ak lu néew mu man ko ñëw bokk koom mbokk taalibe yi baaxee leen ko du def dara lu dul suqali wala gën a suuxat li nga xam ne lii mooy njàngaleem sëriñ Touba te sëriñ bi dara indiwu ko fi woon rek lu dul mën a parfaire nit ñi jàngal nit ñi defar ci ñoom loo xam ne lii ba ñu nekk loo xam ne lii loolu rek ko taxoon a ñëw defar nit rek ko taxoon a jóg te instrument yëpp nag sëriñ bi indi na ko werdi wii nag di maaxuus lenn la ci am na nag lu bari loo xam ne maa ngi ko doon dégg léegi ci waxtaan wi baat sàngam lu muy jariñ ak wér sàngam lu muy jariñ yooyu yépp nag njariñ li dëgg dëgg dëgg daanaka du luy jóge ci gémmiñ dugg ci nopp day loo xam ne ab taqoo la sellal ko ba pare fasanteek moom euh, jaayante goo xam ni kóllëre lay doon nga xam ni parce que euh, euh, bariwut te it ku ci ne yaa ngi def loo xam ne lii booy xool njariñ la ca biir li jëm ci yow bariwul

loo mënoon lu bari dootoo ko man li ci jëkk mooy cër yi ndax ndaxte cër yi kenn du leen commandé maa ngi nii toog ci kaw parce que cër yi xëy na nagam rek a tax tooguma ci suuf cër yi day dem ba dootoo ko man xel mi day dem ba nga xam ne bii dootoo ko mën a téye dina la rëcc day rëcc ka dem dina topp par jamono joo xam ne xel mi day rëcc di dem dina toll jamono joo xam ne di du rëcc ka dem rek day daal di léppay dem te loolu moom doomu aadama ñëw ànd

vous avez 40 yi mujj mu dess 1400 minutes boo dajalee julli yooyu du mat 40 minutes matul 40 minutes nga remplir ce devoir cette obligation du sax obligation bi la yalla sante nga am julli mu wi nga day ak la di di sax parce que wi bu ko sans borom nungo defar na sax julli gu ndax te li nek ci bir werd epp na nit munu ko imaginer ndax lepp yalla la ndax te yalla ko digle moko ko yalla moko at moni ni li lu bax la jox ko ni ko kon li kat man nañ ci wër tamit tamit di ci ba am ci sama ngeureum jaarale ko ci ku bax mu jaarale ko ci ku bax mu tass ko ci ñi nga xamni ni adamay parce que wër du Serigne Touba wi du wër du murit Nakun nit ñi xam wirdu julit la ñepp ci bokk yam te wirdu yi nga xam ni mo am ci adina bi yépp mi ngi ci biir wirdu wi xam nga sax jang kat yi di ngeen di wax bayit bobu sëriñ bi wax kullu wirdin yuridul murida kullu wirdin moy lan ah mooy murit yëpp mooy ñi gëm yàlla yëpp werd yëpp pour murit la sëriñ bi nag dafa ñëw synthétiser ni ni yonent bi synthétiser alxuraan ba mu doon ci téere yëpp noonu la sëriñ bi synthétiser werdi yëpp ba mu nekk ci maaxoos benn werdi bi la boo ko werdee am nga ngërëmul Cheikh na Ahmadou tiitaan boo ko wérdee am nga ngërëmu imam Zanta boo ko ngérdee am nga ngërë ngërëmu cheikh na ahmadou cheikh abdul xadir jeylaani boo ko wérdee ku mas a am wérdu ku nekk rek am nga ngërëmam ci wér wérdu maaxuus bi ndax mi ngi ci biir ah ah wax na ko ah mosuma ko dégg ba dama ko xalaat rek waaw <laughs> ah. waaw ah. ah. ba nga xam ni sëriñ bi yee nañu yee na àddina bi kenn amatul lay buñ ko jàpp ci sëriñ bi sëriñ bi dara mënu ko contenir parce que buñ ko contenir rek ñu ni murit li ñoo ko moom sëriñ bi euh, waaye loolu day day xar xaw xóot naa ko lebboon waaw te it manees na koo wax nit ñi dégg ko du waxu du waxu ku xelam neexut ku ku am esprit de discernement la moo koy wax sëriñ bi xajul ci lu ñuy luñ koy mënuñu ko mënuñu ko contenir ci nu mu tërati sëriñ bi yàlla daf ko indi or contenant daf ko indi pour ñépp la ko indi sëriñ Touba ndimbalu yàlla la ci jaam yi yépp ndax yonent yàgg jóge bi fi yonent génn jógeek léegi bàyyi ñoog téere bi junni at ak ñeenti téeméer dafa bari yeesal mënu fee ñàkk te yeesal bi kat c'est pour sauver l'humanité Nous nit ñi que nous avons bari avons bi mu fiy milliards est-ce que 100 millions wala avons nañu 200 millions Nous nous ngi milliards Nous bangi fi lu nous nit ak ko koy firé defe nga ni yalla amul leneen lu mu pour loola nous dimbali wat nit ñi nit ñi milliards lañu dañu tass ci adina bi dafa bari ba euh, euh soxla yi bari jot gi ndaxte les découvertes yi nga xam ni day day day day day day day day day day yóbbu nit ci loo xam ne lii amul njariñ dafa gën a bari ba nga xam ni munta ñàkk yàlla wàcce lu baax loo xam ne lii pour njariñu humanité bi la mooy Sëriñ Tuubaa ak li mu indi yëpp te it lii ma leen wax mos leen ko rek werd wi na ko nit jël te na mu ko war a jëlee sax ak moom dina dem ba xam ni wérdi wii kat ndekete mooy sëriñam ndaxte loolu ci sëriñ bi def ndax yàlla moo ni ragal ma jaamu ma ma xamal la te loolu lii ku ko yor ku ne jarul dem di laaj lan moo ni ci biir ak lu muy jariñ njariñ li yaa koy yëgal sa bopp xam ni fi nga egg dara yóbbuwu la fa lu dul lii rek moo la fa yóbbu kon maa ngi jégalu maa ngi bu buma bu ma def bu ma tamit jégal leen ma waaw Abdou Khader c'est la nature nee naa la dee ma dompat ak di ma téye ah waaye maa ngi gërëm ñëpp di leen sant di wax ni loolu c'est des formes de réflexion yo xam fi, fii barab bi nii mu mel nii nga gis nga ñu baax ñii nga xam ni xam nga ñii lu baax rek la bëgg dañu bëgg am un cadre boo xam ne dinañ fi mën a sen seen seen seen di waxtaan ne yoon wi di waxtaan parce que sëñ Touba li mu indi mënuñu koo jeexal ëpp nañu ñun ñii sëñ Touba li mu indi ëpp na ëpp na ëpp na murit yi ëpp na jullit yi li mu indi kenn mënu koo jeexal c'est inépuisable mais nag nañ ci ne rek pour mën a xam njariñu li mu indi te nag te ci biir euh, werd wi des na ci jànge sëriñ bi néew dinañ ko ci xame lépp de waye dinañ ci am lo xam li dinañ ko mëna xamé ci sëriñ bi ma ngi jégalu ñëpp di ballu ñëpp ak di wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tubaarkàlla kaddu yi rafet na am solo kon eh, sëñ Ahmadou sëñ Ahmadou murid yëpp nenañ nga ñaanal leen suñu borom yombalal len wérde wi da nga ñaanal leen xéewal da nga ñaanal leen murid guñ nangu. ci barkeb werd wi ak barkeb borom werd wi ak barkeb bés bi kon sëriñ Ahma na ñëpp tàllal ko sëriñ Mouhamadul Fadil moom sëriñ Ahmadul Rifaay moom sëñ Fallou mooy ñaan na taalibe yëpp tàllal kon ci barkeb sëñ Fallou amin amin amin <laughs> sëñ bi ay ja bismillah amin dimbalé ñu ngir jëmmi sëñ Touba nga ñaanal mbolo mi dimbalé mbolo mi ngir sëñ Touba nga ñaanal leen bismillah na ñëpp talal amin amin amin amin amin amin amin jërëjëf Mbàkke barke sëñ Touba waaw kay am na fi téere boo xam ne nag tasawadu subbaan la boo xam ne sëriñ Abdul Muhayminu moom sëñ Mortala moo ko bind traduire ko ci anglais képp kum yitteel rek nga jokkool sëñ Mbàkke incha allah dina mën a jàppale